foogoon ne leneen moo xew mais bu fekkee lii moo xew moom loolu moom du xew-xew du xew-xew waaw li ngeen mën daal moo xew li ma dégg daal wax ko tuumaal ko Ousmane Sonko loolu moom du événement man damaa leneen ngeen may wax waaye lii ma dégg am ku ko yëkkati teg ko ci kaw deru Ousmane du événement ci ku am xel moo xam ne du xelum làppoto làppoto yi nag problème la ci ñoom moo tax may xeex pour ngeen génn ci làppoto gi ngeen ne parce que làppoto mooy piccum xaax moomee picc moomu tubaab yi tuddee jaune noir nga xam ne moom day naaw rek fu mu gis pepp rek dal cof cof cof cof cof naawaat bu gisee am pepp mu dalaat loolu mooy làppoto dafa bari ci réew mi làppoto yi dulu bunyi warna batai gini batai jindi naa leen ba tàyyi moytu naa leen ba tàyyi ngeen lànk na ko def ngeen gis ñu suy am tepp rek ngeen ñafa saraax cofa cofa cof dem seen yoon da ngeen gis ndax da ngeen dañ ku leen gindi bu leen gindee ngeen dafa soxor dafa iñaane kii dafa iñaane kii ba pare lu baax bëggu leen a lu baax bëggu leen dëgg bëggu leen a xam-xam ñor leen li leen ñor mooy diw mooy tëddee diw diw moo sol si bu kii kee moo biiral kii kii caga la kee lii la kee lee loolu ngeen bëgg loolu mooy loolu mooy réew mi réew ay caga lañ wala bu ñu ko nekkul ci kaw nekk nañ ko ci suuf bëgg nañu silibu jàmbur yi ñu yër su ñeengoor si jàmbur yi diw moo tëddee diw kii moo def lii ki moo def laa moo taxit gouvernement bi tamit ubbi dossier caga Ousmane Sonko moo tëddee Adji Sarr tuumaal ko kër kër yéen ñëpp ñu toll nii cinéma bu mag la cinéma réew mi ay làppato ñoo fi nekk bëggu leen xam-xam yi fi caga ngeen bëgg ci waxi dof TikTok baa ngi fees dell la ay dof ndax mag ñi fi nekk ay dof lañ ay dof lañ jur bàyyi ci réew mi ñu t toog toog mel naat coggalu naat naat eh, kiiw kiiw kiiw du ngeen ay nit wax naa leen ko ba waaw sa wax neexul da nga ñuy saaga li ngay wax ni non boo bëggee ñu lay déglu dañu respecté ku leen respecté man nit laay respecté du ngeen ay nit moo nga respecté wu ma leen parce que ndax du ngeen doon li ngeen na ma tey mooy événement mooy xew loolee ba ma ko xoolee damaa ree ba sonn ma ne leen li ngeen nag ci dëgg-dëgg yéen ay làppato dëgg dëgg dëgg ku fi judd ku fi ku fi judd ku fi nekkul làppato da ngaa rëcc subhanallah waxi taat waxi hôtel waxi tëdde waxu sodomi waxu màcc waxu saf waxu li mu saf ki ko màcc ko xam waxi diwoy doxaan ci diw lañ fekk ci taatu niir bi diw moo nekk ci garab bu ci oto lañ ko fekk mun na paaje Cheikh Yérim Seck buy génne livre ci loolu lay bind Macky euh, wax ci réseau gën a siiw ci réseaux sociaux a siiw Sénégal xam ne saa suñu xëyee saaga ndey saa suñu xëyee daggal saa suñu xëyee diw mooy màcc diw diw mooy sol kii diw suñu bu xonk la am ñooñu ñoom la Sénégalais yëpp di wër saa suñu xëyee ñoom la ñuy déglu yéen a bon a yéen a bon bëggu leen lu baax moo tax lu bon jooy waaw Tunisie di déception amul de li ngeen dégg kenn décevoir leen kenn décevoir leen kenn defu leen lenn yéen yéen a seen bopp xanaa kay dañoo waxal tey Ousmane Sonko lu ñu waxal ay nit ngeen taxaw lànk ngeen daan ko déglu bu ñu koy waxal nit mu yaa xam-xam loo wax dëgg la billaay yow kon eh, procureur procureur diw ah, ah. ah procureur boobu nag tey moo moo ñëw jàpp seen waay ne da koy àtte ne ko doo ne ko soo procureur yéen a bon lépp yéen ñii di ma déglu du ngeen dem ci kër gu ñuy waxe xam-xam du ngeen déglu ñu respectable ñu nekk ay nit ñu leen di wax xam-xam boo xam ne kenn du ko tegg bëggu leen xam-xam de li nekk ci suufu taatu jigéen ñi ak góor ñi jigéen ñi mosande ñooñu moo leen ñor parce que yéen ñëpp ay caga ngeen loolu mooy problème bi loolu nag amul fii. man duma fi nekk naan diwooy mos diw bu guddee mooy yëkkati mbaalum xar mi diw ma tëggi toll nii mu naan ko nii mu naan ko yaa ngi may gaañ loolu saa seeg doon wax nee na mbaalum xar mooloom guddi wala daa may mango jën joroom guddi da nga fekk am ponkal moo xam ne jël ponk jigéenu ponkal boo xam ne ma tëggaa nga toll ne mu teg ko ma diróom kay waan ko ii dama yaa yaa ngi may gaañ ji saa seeg ko yooyu leen neex yéen yooyu nag amul fii man fu ma loolu amul fi yéen yéen yooyu wër Wow, maman, man man maman, man man dëkk bi maa man kenn mënuma maa leen gën a ham, maa leen gën a ma xam kenn xamu ko ñëpp a may woo ñe eh, ñe ta rek di jamrek, di jàmm rek di jàmm ah ah nah. ah suñu yàlla ji na ah seen yàlla jàngoog dañu koy bàyyi de seen léegi nag ñun dossiers yi ñu ngi koy topp xam nañ li xew yëpp nag ndax ça fait ay mois ñu koy topp di xool lépp di xam di ay di teg ñun dañuy làppatu de lu fi waay def xam nañ ko live ye wax ye changé yeeg sanse yeeg déplacement yeeg yëpp ak ñi ñuy laal ak ñi dul xam nañ li am na ñoo xam ne kenn du Doro Gueye lan moo tax kii tuumaal tey Ousmane Sonko du laay ki Doro Gueye kii tuumaal Ousmane Sonko ba ngeen métti lan moo tax du laay mukk fi Doro Gueye Pape ma leen di wax Pape Doro Gueye est-ce que kii live tey xam ngeen ko ba ngeen may déglu ma leen di wax ay at lu tey naa commencé live de di leen yee ngeen nekk nit kan mooy Pape Doro Gueye dëkk Saalum Saalum Saalum yi <laughs> xamu leen lu xew de yéen da ngeen di nelaw ay laabatu ngeen bëggu leen borom xam-xam yi bëggu leen scientifique yi bëggu leen ñu respectable yi bëggu leen ñu yiw ñi bëggu leen ñu respecté nit ñi bëggu leen ku wax ci xam-xam xam nga li ngeen bëgg ku vulgaire li ngeen bëgg kuy saaga li ngeen bëgg kuy ku leen di jaay affaire ay gangster gangster comme ay gangster ngeen affaire gangster la da ngeen bëgg bëggu leen film indo yéen film américain ngeen bëgg waaye ñu ñu ñooy jaay affaire rap yooyu ngeen bëgg film américain film américain dana rayante film cowboy da ngeen rayante waaye nag film bi day neex mais bu ngeen demee ba ci fin bi ba film bi waaj a jeex foofu la acteur bi di dee film américain day neex mais bu ngeen ba ci fin film ak principal toujours du gaaw dee kii film bi du toujours du gaaw dee mais ca film ba lay dee xëy film bi day waaj a film bi day waaj a jeex xëy na moo tax acteur bi nar a dee <laughs> yéen du ngeen chet du ma xam lu ma leen di wax dama leen di xool xool xool ba yàgg rek man ne ñii lan laa leen war a wax lan lan laa leen war a wax laa xamul ma ne man lan laa leen li a wax laa xamul ni tontu leen ma waay ah laa leen war a <laughs> ci ngeen di mere kooku deful dara de yéen yéenay problème yi bëgg Ousmane Sonko topp ko yéen yéenay problème Ousmane Sonko waxoon naa leen Ousmane Sonko problème am mooy ñi koy défendre ñooy problème am parce que dañoo ànd ak moom ci am xel dañoo ànd ak moom ci ak ndox su benn nit ñëwee ne Sonko Sonko billaahi ni ma ko bëggee barke rasulullah dañuy waat nag réew moo xam ne ku ci dàq sa morom yaa ko dàq waat réew moo xam ne làppato yi waat gëmuñu yàlla gëmuñu dara te ñi ci ëpp ay baadoo dañoo ndóol judduñu ci xaalis xamuñu xaalis dañuy toog di fëgg seen dënn man damaa am lii man damaa man lii man li ma lii man sama papa lii man euh, gis nga wallaahi ñi am duñu wax ko ci fekk muy fëkk dënn toog ci réseau yi di wane woon man nii laa mel di soldat di wane woon di jënd t di wane woon jënd casquette di wane woon ngeen topp leen ngeen làpp tey film bi jeex na boo dem cinéma da ngay kontaan. parce que maanaam film bi su ñu la tàmbalee day kontaan waaye su film bi war a jeex foofu ngay béré film bi nag film bi mi ngi ci fin bi acteur bi moom mooy validé acteur bi mooy validé léegi film bi jeex il faut être intelligent dans la vie intelligent dans la vie wax na leen xeex bi ñuy xeex du xeexu gone du xeexu làppato du xeexu baadoo la pauvre ku amul dara pauvre du xeexu ku amul xam-xam. xeexu xam-xam la xeex bu noble la qualité yi nit diw am yëpp da koy am mën a soobu di xeex bi xeex bi du lu ñuy tàbbi lu ñuy xam yokk bi la lu ñuy xam dégg nga bi nekk xeex bi pour nga mën a xam lu ñuy xeex du xeex pour siiw du xeex pour am xaalis du xeex pour ñu corrompre la du xeex pour am buzz du xeex pour ñu xam na du xeex pour wane ay dàll fi yooyu sël du xeex dem ay hôtel du xeex di yore ay hôtel ay ay oto du am naa xaalis du xeex boobu xeexu baatin la yëf yàlla la te yëf yàlla day am kasfu mais loolu xamu leen ko ndax juddu leen ci yàlla xamu yàlla ay feneen ngeen gëm ak ay star yu taxaw di leen fen di wax guddi bëccëg ngeen koy tàcc suñ ñëwee attention de da nga koo soxore da ngaa lii yàlla baax yéen ñëpp waaye yéen xamul yéen am na ñoo film te yaakaar suñu principal bi day rey tuy tuy tuy day tàkki waaye keneen acteur bi waaye du film bi wàllu jeex foofu la acteur bi dee bu acteur bi dee rek xam ne film tàkk leen seen i bagage bu bu acteur bi dee rek film bi jeex film américain film inde la acteur bi dee ndax film romantique la inde film acteur bi dee waaye film américain acteur principal toujours day dee buy buy dee rek mooy film bi jeex yéen nag ci film ngeen nekkoon te léegi film bi jeex ñaata yoon laa leen wax kuy door a géej ñaata yoon laa leen laam ñaata yoon laa wax kuy joor jaaj lii xew tey jii ñoom ñoo ñu jëluñu si xam naa bu baax li may wax xeex bii du xeexu ku pauvre ku amul xaalis ku giddul ci xaalis ku noosul ba pare koo xam ne dafa noos ba fenn ci noos koo xam ne dafa judd ci alal lekk ci alal ba fenn wër àdduna bi dara ëppul bëtam mu jàng ba am xam-xamam waaye yàlla dogal mu bëgg réew mi bëgg njub yàlla xam ne Ousmane Sonko nii la yàlla yónni ko defar réew yàlla ak ko ko ci xam bëgg ko ko ci may dara bëgg nga ndax lépp lu muy lu nit di jox ji am na ko dund ci ci lu judd koo koo mën a xeexee waaye doo fekk koo xam ne ci sën bi lay fekk ba mu juddoo ba léegi ci mbalit mi lay a tekki ñëw dugg ci xeex bi pour siiw pour am lu mu négocier ngeen ànd ak moom ku fu dof na ci xeex bi ngeen ko def moom man nii ngeen waxal nii su ma leen toppoon tey maa nga gisal ma mais dama am sama sunna teel a ñaan xawma kenn wóoruma kenn waxuma kenn kenn gisuma dewuma ci kenn fu ma gis ab sénégalais daw suquma ak yéen dara dama leen xam da ngeen di dugal nit ba ràññati ko dugal ko ci kaso dugal ko ci musiba ba kooku dugg ci musiba bi ngeen ngeen a dugg di ko xas ki ni ngeen di xas tey yéen ku ma àgg yéen ko fa àgg te ko yàq loolu loolu laa xam ci yéen ñi moo tax ma di leen moytu ci ci nan la tey tu as raison démb moo àndoon ci muy xas tey dina xas yow waaye comme kooku mas na ko léegi ci yow la jëm si man koy yaay suñu dernière chance man du ma dernière chance kenn li may xeex xeexalu ma leen ko seen yoon nekkul ci li may xeex xeexalu ma ci kenn ci yéen du ma dernière chance kenn sama bopp laay xeexal ak Ousmane Sonko mu falus sama yoon nekkul ci yéen ngeen ànd ak ma seetaan nag seen dernière chance seen dernière chance da seen Pape Djibril Fall man du seen dernière chance bu kenn tam dëgg ndax nii ngeen la ku dee yéen a ko rey ku dugg ci musiba yéen a ko rey yéen ñii di seetaan bu ma kenn yóbbu ko yàlla sax yéeg futtooy jën comme ay picc ku woote ngeen ñu taxaw tàcc tàcc tàcc fekk li ñuy wax neex na leen bu ñu bu bu dóoree ko si seen bëgg ngeen kas ko ana dëgg ana dëgg kañ ay nit damaa wax ba sonn wax ba toog ñoom nag ñooy seen i xaalis. sàcc seen i milliards jaay seen i cocaïne ñoom Dior nyom ki ñoom Doore Guèye cocaïne yi jàpp jiri réew mi yëpp ñoo koy trafiqué du ko jaar ñaata yoon laa leen ko wax ñoom Eliman laat ñoom ñëpp ñu ànd ak Macky Sall di tóor ya. di tek maatu nah, ya, ya, di tóor tek seen ay business yooyu seen dossiers yu garaaw dinaa ñëw seen yeneen dossiers yoo xam ne ay dossiers yu bees la Eliman laat Doore Guèye ñoom ñëpp maa ngi ay paquet ci trafic yi nekk ci réew mi ci ay yu bëree bëri maa ngi dossier wax ba tey nyom ñoo yore ku ñu fi jënd jox la xaalis nyom ñoo yore nyom ñi may wax ny képp ku yi fi jënd ci xeex bi nga fekk leen xaalis ah xaalis nag dafa am ñu ko xam ak ñu ko xamul am ñu ci juddu am ñoo xam ne juddu wuñ ci dafa yóbbu seen si waaw moo di leen wax leen rek bu loolu weesoo bu ngeen tëddee. na ngeen nelaw ba yandoor maa leen newoon barki démb bu leen nelaw ndax dañuy gatsa sa gàtt sa gàtt sa gàtt sa boobu nag moo waral lii ngeen gis yëpp ci gatsa sa gàtt sa bi la jógee yéen bu baax seen xel ngeen déglu ma te ngeen partagé bu yaatu ñëpp dégg làppato yi ñu yeewu te gis ngeen li xew ci jamono bi tamay procès bu ñu bëggoon mu këpp Ousmane Sonko buñ doon tuumal ci Adji Sarr bu këpp yàq candidature Ousmane Sonko bu këpp loolu lépp li ko këpp mooy Ousmane Sonko bis bu yàlla sàkk muy gën a bari doole gis ngeen tey yii ki ko tuumal nii tey tey tey nii bu subaa bu ñu xëyee Ousmane Sonko dina am junni Sénégal yu ko topp yoo xam ne ba tey bii avant tuuma bi di topp ñu ko woon vidéo yi ñuy wax ak ci audio yeeg yooyu am na nga Ousmane Sonko tey muy lépp di ay montage dañ koo monté de ñoom ñoo ko def fay ci ay millions yu dul jeex des centaines de millions montage képp ku génn vidéo Ousmane Sonko boo xam ne fake la conséquence juridique yi la cay fekk na nga xam ne foo mën nekk ci àdduna bi gars yi nañ la porté plainte te dañ lay topp ay avocats internationaux yi jël teg ku ko mën nag na nga fexe ba li ngay jëme ci Ousmane Sonko mu nekk loo xam ne bu ñu yóbboo devant un juge di nga mën a lay Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui Adji Sarr ni ko tuumaal bëgg na see génn mu tëgg ko witti witti witti witti witti keneen képp ku ko tuumaal ñu jox la ay vidéo ñi la jox vidéo yi sax ñu koo génn ñu jox la ko yow nga génn ko taxaw di waat ci yàlla ak alxuraan rek lépp ci yàlla ay nit ñoo la ko jox xamuloo fan la vidéo yi jógee fekke woo xamul lu xew xamul luñ ko monté bis boo ko génnee boo nekkee Canada di nga wuyu yoon boo nekkee France di nga wuyu yoon foo mënti nekk ci àdduna bi la traîner en justice te la la cay fekk kenn la ci fekk lu leer lay wax man man du ma làppatu de dama jàng xam li may wax benn ndax vidéo buñ si mënti génne Ousmane Sonko fake news la daañu démontré ne vidéo bi sëg daal di ko tracer scientifiquement patriote yi ñun am nañu ay moyens scientifiques pour démontrer ne vidéo bi fake la tribunal bu ñu mënti dem au niveau mondial daañu taxaw na leen c'est un fake c'est un te képp ci tàkk ci fake bi daañu ko tracer te tu mooy benn parce que ay fake lañ ko jox ay montage yoo xam ne ñoom ñoo ko monté préparé ko pour bëggoon a dem procès génne ko fa procès public procès public bi nga dégg l'âge du droit lii lañ préparé woon pour génne ko fa bu ñu demee àtte daa ñu génn ay vidéo gis Ousmane Sonko muy sëy kii muy defalee kër kër da nga xam kër kër ma ne seen procès da nga dem préparé boo yàqu xam ngeen du ngeen dem procès léegi ngeen ne nañ ko génne yéen nguur gi bu ngeen amee fit nekk ay góor yi yàlla ne Ousmane Sonko day day day def leen lu leen ko tey génne. ngeen dem xol ku nekk Canada dem di ko jox moom mu taxaw di waat di fëgg dëgg di mel ne moom mooy yàlla ci kaw suuf moom moo xam li xew li xew moom mooy xam lii dëgg li dëgg te loo xam ne dañ ko koo jox moom day taxaw na lii dañ ma indi naka lañ lay indilee ay mbir nga war ko étudier scientifiquement ngay gëm nan dégg naa ay audio gis naa ay vidéo gis naa ay message gis naa ay transfert daal la xëy na vous vous rendez compte ki mu fekk yow dañ laa jox te ki la jox xam nañ ki la jox kan la ki la jox xam nañ fu mu nekk ñoom ñëpp ñi leen manipuler yëpp xam nañ boobu ba léegi ñu la pat parce que bëgguñu yàq wax xam ne doo ko waxoon tey yéen ñi ma dund yéen ñu jóg taxaw dana ak Akhenaton dafa soxor Akhenaton warul wax nii Akhenaton léegi laa Akhenaton kële kële waaw parce que man di man di ngeen mën waaye am na ñu may dégg ci laayit xam nañ baax li may wax wax naa ci ak ñoom ñoom xam nañu parce que ñun nekkuñu fi pour di fëgg dëgg nekkuñu fi pour di wane nekkuñu fi naan Sénégal ñoo ko téye man téyewuma Sénégal amu moomu prétention nit la lu ma xam am nañ ko ko xam fukk ne pat te yënguwul dafa war la modestie mais modeste ku ñu yar mooy am modestie arriviste mënut a am modestie c'est ça la mais nag réew mi ku fi dof yéen a ko dof yooyu yéen ñi laay wax ak mere mais kii wax noonu mere yow moom mere parce que ku fi dof yéen a ko kon ma ngi wax ne vidéo amul audio amul transfert ak yi ñu lim yëpp dara lépp c'est du montage tout te lu ci génne di ko prouver daañu la en justice Canada États-Unis Japon foo ci nekk on va te poursuivre avec des avocats.

ku toog ci réseaux sociaux yi di ngàpp ngàpp ubbi sa ji yaakaar réseaux sociaux yi benn benn nangu benn line la boo xam ne da ngay toog fi nga toog di wax lu la neex di poster lu la neex di def lu la neex di fëgg sa dënn ku si kaa jël si ba la ko dara man mii laa laa nga yaakaar ne c'est que c'est que tu n'as rien compris t'as rien compris rien compris les réseaux sociaux ay nit ñu semence ay nit ñu intelligent ñoo ko intelligence bobu ñu créé les jours moom dañ ko encadré l' intelligence c' est la loi dañ ko encadré ak ay loi ak ay normes bu ñu toog fi nga toog di wax lu la di filmer lu la neex di poster lu la neex am na ñoo xam ne boo leen laalee wala nga tuumaal leen ci réseaux sociaux bu too ko doole jaay ma j'avertis parce que nous sommes des hommes de science ñu ngi xaar nag Ousmane Sonko.

ak golo gu ndaw jógee fële di kële kële nit ñi di leen fonto parce que yàgg na di taxaw diw dafa tëddee diw diw dafa sàcc nii diw dafa koy koy mais lan lañ leen ci wax yéen lan ngeen dégg ci réew mi fii loo xam ne man waxu leen ko yéen ñu may toog lan ngeen dégg ci biti loo xam ne waxu leen ko dama leen laaj ay Dior Gane ay Elimane Lam ay Cheikh Kacha ay Macky Sall ki Marième Faye Sall ki Antoine Diome loolu la ma koy wax ñii di wax dañuy wax. ba leen koy wax yéen booba est-ce que ça seulement wax ci comédie duna ko wax ci rap duna ko wax ci ci ci insolence duna ko wax ci golo golo parce que ay golo ngeen yéen golo man nag du ma golo moo tax xëy na saxul ñoom ñu ngi monté ay vidéo mais duñ ko génne dañuy xool kenn ñu jox ko ko responsabilité la ci kaw ci kaw kooku lay nekk taxaw naan Sénégal lay xeexal ànduma kenn Sénégal lay xeexal est ce que duñu ngeen wax ci ànduma kenn man Sénégal lay ànd ku àndul la kenn àndul Sénégal ndax Sénégal kenn la Sénégal du lu abstrait Sénégal ay nit la nekk du xeex naan ànduma kenn kon ngeen xeexal sa bopp ngay xeexal waaye yéen nit bu xeexal ba ko la ko toppee man Sénégal laay xeexal de mais Sénégal dafa am ku ko incarné mooy Ousmane Sonko waaye taxaw di xeex koy xeexal ma kenn bu tayee nga ne Ousmane Sonko laa àndal boo wala dal ci ko Ousmane Sonko na ànduma kenn ngeen topp ko yéen ñun dañuy assumer man je ne suis pas de Pastef mais Ousmane Sonko mooy sama candidat moom laa mas di jàppale et je l'ai toujours assumé j'ai pas la carte de Pastef par contre je l'assume du ma naafeq bu tayee Ousmane Sonko la bu subaa Ousmane Sonko la déedéet Ousmane Sonko laa àndal je l'assume man samay ay hôtel sama ay voyage doole yooyu du ko fay élément laam du ko fay maa koy fay sama bopp je voyage à travers le monde ma sama kër papa wala jënd ay dàll wala tëdd ci ay hôtel wala di lekk non man dama am wëri woo xam ne daf maa waajal yar ma waaw je suis pas un badaud ñu taxawal di di ratatat arrêté am man maa len ko wax man dara du am dañuy sóob ak di tiital nit ñi waaw ah, ku rep rek ku rep ku bëgg a dee rek mo dugg ci caaya Ousmane Sonko wax naa leen ko wallahi alazim Macky Sall mi ngi dugg di ci génn agi Sarr du ci génn Bassirou Gueye du ci génn ma xam jall mi ngi duggee du ci génn Bassi Samba Sall mi ngi duggoon dee na du sekk daw na ku fi dugg dee kii nag moo ci des moom nee day songu Ousmane Sonko ñoo ngi taxaw di ko xaar Ousmane Sonko dina tontu du sa papa la Ousmane Sonko yàllaa ko baaxal kenn mënu ko satal ku ko jéem a satal yàlla rëkk sa ndigg te ci ñun la ko yaral bu nit ñi foofu ñu caaxaanewuñ ci ay sagaru nit yu tekkiwul dara ci réew mi xamuñu yoon xamuñu seen bàyyi tekkiwul dara ci réew mi ñu toog di mbàpp mbàpp parce que benn xale bu ndaw Mark Zuckerberg créé na réseaux sociaux nga taxaw di mbett mbett am nit ñi kii moo doxaan kii kii moo tëdd kii kii doo moo leen biral la kii moo biral kii kii moo kii kii kii léegi nag Ousmane Sonko nag mooy terminus bi mooy fin film bi moom moom moo di desal moom laal nga laalaate wallahi laal nga laalaate laal nga laalaate moom moo ma di tuumal Ousmane Sonko ñi ngeeg moom ci ay dossiers yoo xam ne bis bu waxee ci Ousmane Sonko ay avocat Ousmane Sonko ñi ngeeg moom ay dossiers yoo xam ne moom xam na xam na laaj yooyu dina ngeen ñëw laajte ñi ngeeg moom ay dossiers yoo xam ne. moo gën a garaaw dossier yi ñuy wax ci ay dossiers yoo xam ne ñi muy tuumaat ci bu fekkee ni ma déglu xam ne na benn ci avocat Ousmane Sonko na na ko weddi am na benn avocat Ousmane Sonko nga lu ñu ci yow kenn la woon. ngay nakk nakkal bis bu la bis bu jógee ci da nga xam ne lépp dëgg Canada boo xam da koy jël gis nga fekk espoir tout un peuple Sénégal yëpp di réer ci Ousmane Sonko picc yi yëpp ngay kal kall mel na benn ci Sénégal laay kenn kon andu Sénégal bëgg dimbali Sénégal te àndoo kenn koy xeexal Sénégal ay nit a fi dëkk kenn ku ci nekk am koo àndal nga ne Sénégal yëpp àndal ci kenn Sénégal day xeexal looy xeex lan ngay xeex lan ngay xeex la mais mais yéen ñu nekkul ay nit yéen ñu koy déglu xeexu ma ànd ko kenn Sénégal laay xeexal mais ku ànd ak kenn Sénégal bëgg Sénégal ku ànd ak kenn Sénégal yi la Sénégal yi bëgg waaye ku ànd ak yi kuy xëy di xas ñëpp xale ñëpp àndoo kenn kooku kenn moom yéen dof yi dañu la ko mais dugal ay nit li ñu dal yëpp te ñàkk nit moo ñu ko dal man mënewu ma kenn yéen patriote yi ànd ak Ousmane Sonko te ànd leen Sonko am xel yéen yéen sama problème man ku neex mu def leen de yéen ñuy topp nit ñi dem ci seen page yi di abonné di partagé di tagg ak di wax yu doon xamul ak di jël nit ñi leen yëkkati leen teg foo xam ne naan li mu nit wax dëgg la mais lan mooy dëgg yéen da ngeen xam luy dëgg da ngeen xam luy dëgg luy dëgg ak ay preuve luy preuve ban preuve la ci ay wax yu ñuy wax ma diw nii ngeen wax mas naa wax preuve yi la am preuve yi lan mooy preuve yi dama ne leen ma gis wax ne lii preuve yi la jox wax leen ma ko dama leen laaj ki ngeen taxaw tey ba mere ko ba ba te démb yéen a ko tàcc ne général mooy préféré yéen ñëpp bëgg ko bokk lekk yàlla ko ku ko gis bëgg mu taxaw ne Sénégal ma ko téye laa xam li ma xam Macky Sall xam ko man maa man Ousmane Sonko maa man Macky Sall réew mi maa fi man foog nga ne ko waaw yaa man ñëpp yéen ñii lan la mas a teg ci ko taaba ji lu mu indil ay preuve wax leen ma ko wax leen ma benn wax leen problème bi du moom problème bi yéen wax leen ma moom wax leen ma ko wax nañu ba tey du leen parce que xam na leen wax na dëgg léegi nag yéen seen i bët di parce que dóor na fee ngeen tàcc bu dóor fële ngeen tàcc fu mu dóor ngeen tàcc fu mu dóor kii kii ngay tàcc léegi yow mi ko tàcc te seetlu ndax dóor yi muy dóor ndax tegu na ci dëgg ndax tegu ci conviction ndax tegu na ci intérêt général xooloo billaahi wallaahi farnul man lii tagg ma ko ma kër nga topp ci moom muy duur ñeneen ñi sa noonu ngay ngay ngay xaax ngay ngay rek xam bisa ne gise yi gis gise yi gis sa gise yi moom man yéen ñi ma àndal ku ci nekk ci dëgg dama nekk ci dëgg man parce que dama dal seen kaw bu baax te maa ngi leen a ànd bés bu nekk dama dal ci seen kaw parce que ci dëgg laay àndal nit fii la Ibrahima Niass jóg taxaw waaw audio yi Adji Sarr am ay preuve que damay yàq biir bi preuve audio yi génn yéen ñëpp déglu ngeen audio yi yéen ñëpp déglu ngeen ay audio yu am la nangu na am la wax lu am la lu kenn weer kan MGS lu amna, la mais lan la MGS doon wax ci audio dohan xaalis ndoxaan kër xaalis ndoxaan kër saa yu yëpp tey ubbee gi ñu ci audio yi gën a génn moo ko bi da ngay jox xaalis man nga ci am milliard waaw da ngay takk waaw suuf man nga tabaxal est ce que du wax est ce que ko bàyyi MC Niass doom doon na Cheikh Ibrahima Niass mais ne moo Cheikh Ibrahima Niass moom doom lay baax mais ne mais yéen seen jiit nga indi MC Niass su bàyyam baaxee tekkiwul na moom lay baax MC Niass baaxul guddi baaxul bëccëg wuyu la dafa yàq suñu dossier audio yi ngeen gis ñu koy génne MC génne wu ma audio yi ngeen gis muy génne moom ak Adji Sarr MC génne wu ci benn MC génne wu ci benn audio man maa leen wax loolu MC du mës a génne audio

ndax li ngay tuumal Ousmane Sonko am na wala déet yaa ngi wax ak moom aji wax la dama dangaa bëgg ma takk danaa takk waaye nag aji mënu maa takk na jigéen joo xam ne nag daf na dañ koo sàkk damaa bëgg wax ne ndax sàkku na nga wala déet aji wax la aji lii lu ñu ci dig lii aji kan moo ko dig diw diw diw aji est ce que mën nañu gisee waaw nga fexe ba toog ak aji parce que aji yow na moom mën ñoo toog nga vidéo ko toj yëpp te ñu am say prix MC Niass loolu ñëru ko xaalis lay wër MC bu bëggoon dossier bi jeex bu jeex mais mosu ko woon soxal MC baaxul sàngara la woon ak jigéen ju na paade ak alal àdduna kepp la yoon wax naa leen ko fi ñun sànga ba yàkkaroon ne ba mu leen dëgg ay fen ak ku leen nax képp ngeen bëgg ndax da ngeen am judd ci làpp ay fen ngeen judd ñu naan na leen ci ay fen ay fen moo leen naan ay fen moo leen di régloo yéen seen xel yi fen la koy rek fen fen koy defar mais pas ma dal fi ci kaw MC Niass moom mii tey ngeen ngeen xas mu génn défendre MC Niass waaw parce que ñoo bokki ay muus ñoo bokki ay façon ñoo bokki ay bii waaye ma dal fi ci kaw MC Niass mooy leen man audio yi arrangé na ma waxi Adji Sarr arrangé na ma li MC Niass def fexe ba approché Adji Sarr pour dëgg fay moo arrangé waaye MC Niass approché Adji Sarr pour ay intérêt personnel fekk complot bu Adji Sarr lal MC Niass dugg ci ànd ak Adji Sarr tegaat beneen complot pour lekk ay milliards ci kaw complot bi loolu du ma ko def bi nga mën a tax ma leen man dëgg laay xeex. du ma jël mukk ay fen di ko xeex dëgg du ma boole fen ak dëgg te dëgg mooy dëgg te si Niass nii dafa ñëw ne daf dimbali pour dëgg feeñ mais ay fen la dugal ci biir pexeem pour mën a dëgg feeñ te daf ñuy nax dëgg alal ci kaw diir bi loolu feeñ na ci audio yi audio yëpp am na yu war a jëm bu da nga gis ne xaalis lay wër bu ko Adji Sarr di wax te du ko kër gi nañ la tabaxal suuf mën na ci am ay milliards bu ma def lii ma def la dil rek xaalis ko moo koy indi si MC Bara Ndiaye dugg ci waaw bàyyi la MC kër gi nga bàyyi mosoo toog MC Niass ma ne ko Baara Ndiaye moytul MC Niass mi ngay tàgg naa noonu la say naan ak yooyu fii du mas yooyu ay caaxaan la Cheikh Baara Ndiaye ay tappale maa la ko wax man caaxaan yooyu ngeen nekk nii dëgg laa ànd yéen man su ay tappale ak ay caaxaan fekk ku ñu as gor set nit ñu tuumaal ko doomu daal di mel ne Alioune Sall tuumaal ko ngir ne cas jógee fële bëgg sii bëgg alal bëgg jigéen bëgg taax bëgg kenn xam ne ci yi Ousmane Sonko bëgg dugg sarax ci ak bëgg faa dugal yeneen i complot ngir seen intérêt bopp duma ko may kenn bu ngeen ma bàyyi woon ñun ñëpp sama laaj yi naa naa ko wax te li ma wax wallahi al azim ba jant lii fekk may am dëgg a mus du ngeen ay nit. mooy mooy la Cheikh Ibrahima mais na ko yonent jur na yonent bi jur MC Niass laa la wax bu nekkul dëgg doole am la naa ko néew nga Ibou Niass doomu raam la mais dama ne ku yéen a tudd tur te nekkoo ci dëgg laa ne raam la yéen ay nit ngeen yàlla wàcce dëggam yéen a yoon jàngal lu dëgg ak lu dëgg ay fen ngeen ne fenkat bi ni fen ku nañ ko bàyyi parce que yéen bi mooy maamam ba te ab fenkat la ngeen ne kenn du ko wax subhanallah yéen ay nit ngeen. ana fu yëtee mujj tey la dossier bi gën a jaxasoo ana audio yi lu

li may wax dama koy jël ku ko wàqi mu xëy xullu ci say maanaam que yéen bës ngeen bëgg doomu diw man gëwuma doomu kenn gëwuma bës xawma leen bëgguma leen a xam moo tax du sama kanam parce que du ma lekk kenn du xawma ci kenn sama yoon nekkul wax ji mu neex mu naqari ku bëgg lu dégg li wax nga génne parce que foo feneen foo ay fen nga fay moom da ngay dégg-dégg fii ngay ñëw par force neexul ma kenn. waaw bëgg a jël nit ñi kidnappé leen ci ay tàppalee ci ay du ma du ma ci bokk ak moom mi génn ak MCS ak ñoom ñëpp Saloum Saloum ñoom ñëpp waa Saloum la da ngeen doon wax naan waa waaye léegi nag nee nañ ci wax waa Saloum Ahmed Khalifa Niass ñun ñëpp complété wu doon kat yëpp Saloum. jàppoon nañ fi kilifa ci ay passeport moo kan benn copain bu ñuy wax ci Diallo ak kan ñoom ñu fi jàpp ñëpp wax ay Saliou Sall ñoom ñëpp ñoo màggandoo Dore Gueye ñoom ñëpp waas ñoo doon ci koñ kaw la xamante teg diil ci kaw diil dóor ci kaw dóor lu leer la ñu wax teg diil ci kaw diil ñuy xeex suñu xeex pour defar Sénégal pour nit ñi mucc pour pour ñëpp tekki am ñoo xam ne ñoom seen ay poche la ñuy liggéeyal pour am ay dàll sol ay casquette nekk ay xam nga ted boy comme dis ay all eyes on me ay xam nga only God can judge me ay dear mama la ñu gëm ñun yooyu bañ koy gëm boobu ñoo ngi lycée waaw di di di di di aligné di yëg ci avion yi xam nga nekk ay bad boys nekk lycée vous di aligné di sol ay Levi's rose di sol ay ay ay ay ay ay John Renfort ci àll bi mais weesu nañ yooyu loolu affaire tolxoo la di dugg ci oto di ay casting di ñëw di naaw ci àll yooyu di yi xale yi xam ne ñi ay booy parole nañu ay nante lañu duñu ay baadoolo mais loolu c'était un temps weesu nañu déglu ay tubaab ay biir si moom dégg ngeen ñoom xam nañ leen waaye loolu jamono la it day màgg. xaal day weesu mbote waaye doo màgg mukk nekk gën rek jaay ay tëj booy tëj booy mooy lan mooy mooy bandi quoi mooy koo xam ne yow euh, yëf yëf dox ngay def quoi tout temps da ngay euh, yaa ngi def jël a dafa jaay àddunaam ci ay yu ñàkk ay risque yu ngeen dee tout jeune ay notice big pareil ay affaire gan ay dox yooyu mooy dafa xewi dafa xewi ñuy toog ci télé yi dañuy mbëzë mbëzë dof yi yéen tamit ngeen toog di déglu ay ñoo xam ne mais mais je comprends pas on est au vingt et siècle on parle du gaz et du pétrole on parle xam nga de l' intelligence artificielle on parle de physique quantique ñu toog naa oui ñun ay tel boy la oui ngeen toog di déglu mais dañuy tënk. ñun ñi ñu xam xam nañu ñun du ñu ay baadoolo du ñu ay doomu baadoolo yàllaa ko dogal nag duñ ko namoo parce que néexuñu ñuy wax suñu bopp mosu leen dégg may wax lii mais sa xol mooy tàng des fois wax leen ni ay kan parce que bëggoo ko mais da koy toll foo xam ne que nit ñi ñoom ne parce que da ngay gis ay sagal nit ay baadoolo yoo xam ne ci ay néeg yu déedéet la ngeen fanaan amuñu parce que ay Facebook man su ñu doon bekk moo créé Facebook kenn xamu ko bi nga doon béyee keroog lay

déglu xam nga di déglu xam nga ay ay Nelly Spruill waaye déglu ay gospel loolu nga di déglu ay blues rhythm and blues R&B rhythm and blues xam origine bi xam cosaan bi xam souffrance yi nekk si ginnaaw xam esclavage bi xam souffrance yi xam xam nga la musique spirituelle waaye di déglu di déglu di déglu xam nga di déglu uh, ay Otis Redding eh, ay ay Otis Redding la ñuy déglu nii de la vraie musique am sens. oui mais non, parce que c'est pas un objet moi moi moi moi moi C'est Sénégal gars, les ça la vérité. C'est la gars, les la wax ko

oui ah, loolu nous intelligence artificielle wax le monde de demain le monde de de de du smart le monde de l'intelligence. Nous avons le monde de faram sujet thématique nous avons le wax dossier de am ay questions techniques juridiques dossier mais soxla le ñoom ñoom dossier de xam nga

quant à ci jigéen ji ci ay vidéo ci ay montage yooyu moom seen yu kasaw kasaw seen yu blabla fii vidéo bu baax vidéo buy dugal Ousmane Sonko amu fi vidéo bu ñu fi def dañ koo monté contre Ousmane Sonko te lu si waay daal di ko démonté topp la ci yoon te ni ñuy monté leen Ousmane Sonko vidéo loolu la ñu mën a xëyee monté Macky Sall ay vidéo ak i cagaam monté ay sëriñ seen vidéo ak seen i ci fi génn vidéo bi naan moom ci boppam moo vidéo Ousmane Sonko daan jël vidéo moo doon ko papaam ak i caga lu leer laay lox lu fi loxo dafay loxo mën na ko def ku fi génn vidéo bu ñu dëgg ci Ousmane Sonko daan jël vidéo defal ko bu gën di yore jël sa papa dugal ko ci ak sa yaay teg Sénégal yëpp di ko gis da ngeen ko def li ne réew mi dañ ko dañ ko bàyyi dañ maanaam benn àll la boo xam ne lu neex waay def lu neex waay wax fekk ay set nit leen yàq seen di nekk sociaux yi réseaux sociaux dafa am ay règles Facebook WhatsApp Twitter Mark Zuckerberg da dafa am ay règles mënoo cee nekk di def lu la neex di publier lu la neex di yàq dara lu la neex dafa am lii dañuy am ay vie privée képp ku ko def dina leen coûter cher lan naa leen ko wax nag. bu fekkee yéen ay laapate ngeen man ku fi toog di génn vidéo bi ñu monté ci Ousmane Sonko ko monté la ko monté yow monté ko sa papa sa yaay xanaa wax day fan. mais dama yéen ñi jàngul ci a jàng rab te tekki ay vidéo ko <laughs> a tànn foofu lépp na gis ci àdduna rek natt da ciy baax ndax natt ci la nit ñi di yeewu lii bu amul woon tey kenn lii may wax ni tey jii su ma ko waxoon démb wala bëgg démb saaga ngeen ma ñëpp ñëpp yàq ma loo xam ne tey jii te yàlla xam na li nga dëgg la waaye su ma ko waxoon tey ngeen yàq ma loo xam ne ndax yéen a jël nit def fekk yàlla toog ngeen yenn yàlla sànni yàlla parce que léegi loolu ngeen xam. sëriñ si yàlla lañu rappeur yàlla la kii wax diw la tëdd yàlla la yéen ñi lu dal nit ci réew mi ko yóbbu man nag duma ci xuuse bu bu sori li tax ma def laaj bi mooy rassuré leen dalal leen xam leen ne dara amul dara xewul ay tàppalee ci ay lu ñu nasaka nocceeki yoo xam ne dañ ko ay pexe yu ñu la def ay mbir ay film yoo xam ne comme ñi ngeen se daane film film yi film lañ teg boo xam ne pour yàq deru tey la mbooloo ñu gën a bari bëgg démb def meeting boo xam ne adduna bi yëpp ñu ngi koy sow ci Kër Massar te bi ñuy waajal Mbàkke moo gën a gën a gën a rëy ci fukki bi junni yoon loolu moo tiital Macky Sall ak mafia politique politico maraboutique bi nga xam ne ñooy yàgg toog ci loosu askan bi di dundee askan bi nekk ca kaw ne noonu askan bi dee di leen jox ñuy lekk muy politicien bi ak maraboutique système boobu nga xam ne ñu nañu ba teg ci fekk ci buum bi ko fas ba nga xam ne rekkantal bu benn rekkantal bu bu bu ndaw bi ci mujj moo di des pour ci ko moom lañ bañ ko ko ci moo tax ñuy def yëpp lakk marché ocas jamono bi ñuy tuumal Ousmane Sonko marché ocas mi ngi lakk ñuy def livre Cheikh Yérim Seck génn livre moom mi tey tey tuumaal Ousmane Sonko préparé ko démb ne nañ ko jox ko doole mu nekk fëgg dëggam ne man rek maay wax dëgg ñi wax ñëpp man rek maay wax dëgg tey mu ñëw daanu fii ubbi leen seen xel baax a baax a baax projet bi yàqu na ba suñu dee ngay yuuxu wu wala ne ngay tamante xamuñu fu mu maa xam jàll kenn gisu ko ñu ne ko nag acca yow c'est à ton film bi kenn ku nekk sa tur yow sa yaa aaye ku ku aayewal sa doom génnal monté ay vidéo yu nekk jox ko di exiger Ousmane Sonko woo ko Ousmane Sonko dafa ñàkk fay da bay woo n'importe qui Ousmane Sonko président de la dañ ko fal ba pare Ousmane kenn du woo lu waaye am na ko génn te lu ci waaye génn na ko assumer ëpp leen xel. ëpp leen ñu alal ëpp leen ñu doole ëpp leen intelligence ëpp leen ñu mbooloo leen lu ngeen mënul xamuñu lu xam lu ngeen def taxaw leen di xaar ndax xam leen lu leen cay fekk ku ko mënti def nag xamul lu leen cay fekk ku ku gis moo la lu tax Ousmane Sonko yaakaar bi nekk ci Ousmane Sonko ak fi Sénégal yi toll papa yeeg mag yeeg mère yeeg ñëpp kër gi nga dëkk yow sax ñoom Ousmane Sonko la ñuy nooyee nga taxaw ne xam nga waxee nga wax ko ne Ousmane Sonko mës sa nekk réew mi kenn nga wax ko waaye léegi yow leneen looy toppee Ousmane Sonko lu sa yoon alalu réew mi Adji Sarr mi ko tuumal amul léegi ak ban sañ-sañ nga am pour topp Ousmane Sonko fu mu dugg fu mu dugg est-ce ku toppoon sa bàyyi xool caayam yooyu li ci nekk ak fan la koy dugal fu mu dugg est-ce que dana neex yow li ngay def guddi bëccëg est-ce que xam nañ ko nga ne nga topp Ousmane Sonko ba ci ci ay jiir ko sa bàyyi boobu sa ci kii wax la est-ce que bàyyi jur est-ce ko toppal dina ko def am fu muy jàpp koy toppee bis bu sàccee suñu alal ñu xaar képp ku man képp ku may dal da ngaa sàcc suñu alal wala may topp sama alal yi wax naa ko ba tàyyi man képp ku ma dal ci xeex bi damaa topp suñu alal topp suñu ñeneen yi ba ma gis nga tàddi boo ci bokkee ma dal ci sa ba ma ko toppee ba gis ay sëriñ yu ci nekk damaa daal ci kaw sëriñ si parce que man réew mi rek laay xeexal mooy intérêt général intérêt askan bi tout dal ci kaw ba léegi moom naa ma wax ne kii weer seen yéen sekk bi fenal naan muy moom lañ fekk ci euh, kaw autoroute bi kii bi deux mille dix neuf mu nekk jigéen côté bi tuumaal ko Ousmane Sonko te du Ousmane Sonko kooku man xam naa kan mais du ma tudd turam parce que kooku yàq li dara ci xeex bi dafa jógoon nekk candidat bëgg a gañe réew mi su fekkente ne loolu dal na ko ci ñu yóbbu ko Abdoulaye Wade bi fi nekkoon te moo ko dem na Abdoulaye Wade ne moom duma xeex sama ay noonu adversaire ci yu fi ñàkk fan yi damay liggéey Cheikh Yérim Seck jël fen yooyu def ko ay fen yoo xam ne da ko indi ci 2019 bi ne Macky Sall lañ ko def mu wax loolu Ousmane Sow ay fen doy xepp te dara amu ci mais ka nga xam ne moom moo dund loolu xam naa ko mais du ma ko dund parce que am na lu ma intérêt parce que kooku yorul alalu Sénégal sàccul alalu Sénégal bu ko defoon ma def ko nit day nekk nit nit day xam am limite waaye koo xam ne respecté woo sa bopp respecté woo sa baay respecté woo sa ndey respecté woo kenn ku yàlla bind ci kaw suuf fàlle woo kenn bu su nekk na taxaw ko ngeen ku amul cër ci kenn koo xam ne fàllu kenn man wallahi azim xam naa ci ko Ousmane Sonko la jëm wax naa ko ay nit ay nit war na wax waxal ak moom waxal ak moom leen di ma ma wax ak moom benn bis taxaw na fii moom ci laay fa Ousmane Tounkara ñoom ndaw soosu lu mu tudd seen ndaw soosu seen ndaw soosu taxawaay dafa lu mu tudd ci fànn kan jàpp lu tudd soosu rek xaw ma xaw lu mu tudd dugg ci seen ba ba xuloo fa te ëllëg sa mu génn daal ci kaw Ousmane Sonko yàq Ousmane Sonko ne asafla muy man dem xam réew mi li ma def kay ka gaa yi dal sama kaw gaa ka ak yow sax woon ma mosuma ko ay fen la. Gabriel Kane ñoom ñett ba mu xulloo ca seen laay ba mu xëyee na laay laay bi demee noonu foofu doon wax na ci lay yi muy lay pour bëgg a liggéeyal Ousmane Tounkara moom chaque na moom dañ bi am du moom mu dugg ne diw na ma patriote na ma na ma da nga déggoo wala wala defi maa ngi jégalu gaa yaa ah maa ngi jégalu mësuma ko wax billahi wallahi na génn prévi ko mësuma ko woo seen coono wus wusuma ko mais il fallait que mu defar dara te defar dara bi xëy na soxla na ma man xelal ma ne man dama ko woo ci di ko yedd yooyu ba xam naa Ousmane Tounkara sax mën na am na gëm ne jamono boobu man maag moom laa ñu ngi waxante moom laay waxal man maa ma ko parce que moom moom wala su bëggee lay day rey ñëpp pour moom dara ko laal bu waree pour taxaw parce que moom existence am mooy compter. boo waree rey suñu dund na ko rey dina ko rey su ma waree rey ma rey ku mu war a rey dina rey pour moom taxaw moom a nekk moom rek moo war a briller c'est lui le soleil c'est ça l'esprit ma bàyyi mu sedd fenal na ma ma fenal nee na woo naa di pour wax ak mu mel ne dama koy woo di complot ko di tunkara te wallahi azim musuma ko woo mais dafa ma ma xam xam ne bis dina ñëw toll de farof laa koy wax tey xam ko bu waree bu amee jafe-jafe ku ku mën a liggéey dina liggéey pour jàll def na ko ji toog na def live am na ko metti moo am na muy fat mu génne audio ji teg def na ko def na ko euh, ki ñu jàpp def ci kaso bi mu jógee waaye euh, rapport bi ñu dof wax ñu dof am lu ñu lay génne wax ñu dof teg ci live am direct man dama wax ak nit ku amul discrétion man dama ni ak nit ku amul sutura man dama wax ak nit koo xam ne boo meree loo neex ngay wax loo neex teg. discrétion dafa am solo nit da ngay am looy téye am looy génne mais doo loo xam wax doo def loo xam ne boo bëggee sauver sa bopp rek sànq ñëpp teg ci kaw ëtt ko def nit ku baax du ko def am na loo mën a wax am na loo war a am na ma xam man man lu xam yëpp loo xam wax ko loo xam wax ko pour bëgg a siiw nit da ngay am sutura am looy xam bàcce am looy xam wax am looy xam da nga koy xam ba noppi doo ko wax mais loo xam wax fëgg la pour lan fan nga jëm lan nga am foo jëm loo bëgg lan lan am loolu woo ñu bëri oui boo ko xamee woo ko wax ko lii conseillé ko ba léegi dina ko mos a woo bis boo ko wootee ko ca laay xam maa ko woo dañ ko jéem a def moom nee kenn woo bu ko kenn conseillé bu ko kenn wax dara moom xam na man na woo yàlla ci kaw suuf dégluwul kenn papaam ak yaayam li ko jël faale wu leen moo ko wax moo tax ne sama ndey sama bàyyi faale wu leen ku faale ku faale sama man dinaa la woo dina conseillé il faut avoir la limite le sens de la raison il nit ñi mën a wax ak yow parce que àdduna bi mënoo fee dundee yow kese mënoo fee réeréer ba dégg nit ñi mënoo fee fëgg dënn fëgg dënn fëgg dënn ba taxaw place yàlla loo mën di xam loo mën di mën da ngay soxla nit ñi di wax ak nit ñi di déglu nit ñi am modestie wàcce sa bopp parce que ngand ngand boobu mu lay yóbbali mégalomanie full grandeur nga dem ba laal laalaate Ousmane Sonko ku ko moom moo fi doon taxaw di ko woy Sonko ku ko songu sàmm Sonko ku ko songu sàmm loolu waxam loolu doo xam dama lay laaj Sonko ku ko songu sàmm Sonko ku ko songu sàmm moo ko wax de moom nag tey moo soogu Sonko xanaa kon man day sànku ñu ngi suñu kanam ñu ngi suñu kanam ko vaar na vaar yëpp dina génn parce que man dina toog Ousmane Sonko utuma imam utuma wàlliyu utuma ku ma yóbbu àjjana ma Ousmane Sonko ànduma ak moom pour ma yóbbu ma àjjana ànduma ak moom parce que kuy doxaan laa kuy doxaan ànduma ak moom parce que day mos ci jigéen wala nga moom naa ko sama réew sama alal a takk loolu ma jabat def loolu ma ko lenn lu ma xam ci diine xam xam naa ko dàqul naa jaamu yàlla sama ëllëg ci réew mi ko Ousmane Sonko àdduna bii nga ne mën naa ko def rek ma ne ko si du doon doxaan passé jigéen dafa nekk di ëmbal sama yoon wu Top ma ko dama koy gën a jàppale tey gën ko voté pour mu jot réew mi ndax benn contrat laa am ak Ousmane Sonko mu soqali ma Sénégal ba sama doom ëllëg duñ torof lii képp moo tax may jàppale Ousmane Sonko toppatoo ma turéy bi li ci nekk fan la koy yebbi fu mu dul yebbi fu koy yebbi fu ko neex sama yoon nekk li may bañ mooy ku ko dural fenal ko naka rek maa sàkku na sàkku woo ma wala ñu jox alal réew mi këpp ko waa ñaar yi bu amul lan moo tax moom mii tey jël di tuumal Ousmane Sonko man dafa tëdd vidéo vidéo bi damaa jooye ci wallahi daf yëf tapp après cinquante yooyu te ko war yëpp xam nañ ko doole Gueye mu nekk ci ginnaaw te kenn du ko tudd moom mi di wax ne leen ko lan moo tax moo tax musta dal ci ko doole moom xam na doole Gueye xam na ndax moom doole Gueye dañuy waxante la seq ak doole Gueye loolu la wax nit lu mu seq a wax ak lan la seq doole Gueye ci wàllu xaalis loolu la war a leeral ci nit ñi xam nañ ñëpp ñi xam xam nañu ñi may wax xam nañu ñu koy topp rek ne pat ma leen ma leen gën ñàkkante ngeen tekki Bisa a ngi bisa bés yi bés a ngi ci bés bu usman yàkkamti lii ñuy xeex du Ousmane Sonko moo ko moom du yow lu may dégg du man projet bi yàlla moo ko ko jiital ci Ousmane Sonko di ci dugal ku ko soob képp ku ci nekk bu ci bëgg xam bu ci bëgg alal bu ci bëgg siiw bu ci fëgg dënd boo def di wallahi azim ba ma leen koy wax tey baatil moo am ci li ku judduwul ci baatin la juddoo ci njaaloo juddoo ci taxawaaloo ci lekk ci sëriñ juddoo ci bàll la xamul luy baatin ku amul kës fu mën a xam loolu te ku ci dugal sa loxo di ko yàq c'est une machine qui tourne boo ci dugalee sa bras daf koy broyer c'est une machine qui broie des bras mën naa leen wax loolu bu leen tiit bu leen ragal bàyyi leen pëy pëy ngeen dégg di ràppi ràppi dal leen ngeen tëdd nelaw xëy ndékki ba suur nekk ci lañ nekkoon ñuy wax wax ñi live live ñu jàpp bisu

moom mu yàq suñu liggéey ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy liggéey ci suuf pour fexe dossier bi kër kër mais à chaque ñoom ñi koy informer ñoo koy manipuler mu ñëw na leen dama am information te dañ koy manipuler ay fake news yi kese lay teg amul lu muy teg yoo xam ne am na ko déglu lan la fi mos a teg photo photo ku ne mën na ko am du preuve photo oui diw ma koy gën a diw photo yi di wala wala diw photo wala wala diw photo diw photo photo mu photo mooy preuve faut faire attention li affaire affaire parce que tu lépp stratégie waaye du du loo xam sax ci mbedd mi parce que procédure ci mbedd am na lu ñu doon wax ci mbedd mi pour ëpp yëg am na loo xam ne ci procédure la te loo xam sax loolu man su ma man li ma xam li ma xam ci dossier bi su ma ko waxoon ci mbedd mi loolu dama ko def man man man man am naa xam-xam du suma lu xam ne kenn du ko wax mais toog nekk mel ne ku nekk ci marché ku nekk ci ab sën mbalit loo fa sànni loo fa wax mais loolu yëfu nit nañu respectante joxante cër xam lu ñu war a def ak lu ñu war a def xam fi suñu ay limite ñu dañuy am limite mais nit ko amul benn limite ci dara mais c'est ko ñu ñu dañuy am limite am am respecté nit ñi wala ñu taxaw noonu respecté ma sama ndey sama baay yéen ñi ma déglu kenn mënu ma ciy wax lenn faale ma leen ngeen ma conseillé déglu ma kenn li ma neex laay def man maa leen gën a xam maa leen gën a man maa leen gën a capable maa leen ëpp fi réew mi maa ko téye kenn gi nguur bu su ma ko nee bul fenk du fenk su ma ko nee tëddal mu tëddi man ku mel noonu yéen ndax ngeen ko mën a toppee lu ngi ci lan ngeen ci lu du ci lan moo bees parce que tey Sonko la ñuy tuumal moom moo di bees lu parce que da dem ba ko ba lu wax dëgg la travailler ak xam ne wax dëgg ñoom ñu koy jox ay information di ko defal ay fake news ba ngeen mu nandal leen ci ay waxam da ngeen jàpp ne maasum la maanaam nit la koo xam ne du ku yàlla yónni la yenant la yéen ñëpp mu nandal leen ci loolu ay jamono jamono di leen nax ndànk di leen tere na ndànk di leen tere na ngeen xendi ci ay waxam ci ay nit yu muy dóor ngeen di kontaan mu ñëw leen indi seen waay ne dama koy tërëree na ko doo ko rek yéen a yéen ñu ne problème bi ko topp doo ko topp ci xam-xam wala nga topp ko ci juddu bu rafet wala nga topp ko ci yar bu rafet

tey la projet yi gën a dëgër suba lay gën a am doole te ñoo ngi xam te dara du a vidéo bi fi génn dara du fi génn man maa leen na vidéo génn mu xool na génn ñi ngay ñi ngay ñi moom li ñëw ci moom bis buñ ko génnee day xalu ji moom day xalu ci xalu lu leer laay wax te xam na am na ñu ko ci ñamal am na ñu ko woo wax ko liñ koy wax te ñi ko woo du ñu windal ay ponk la ko woo ne ko li ñëw ci yow buñ ko génnee waxuma yow sa papa sa yaay sax moo ko yëppee xalu ji toog rek ne man yàllaa ma bind damaa parfait yéen ñëpp baaxu leen man maa am sañ-sañ bi yéen wax seen mbon mais yéen mën ngeen maa wax dara xanaa xanaa am na foofu la xas ku ne waaye yow du la xas nga yaakaar ne waaye <laughs> mais xanaa mais mais nit ñi day xelal jël seen i audio seen i vidéo seen i envoi turu Ousmane Sonko Ousmane Sonko lu Ousmane Sonko dañu koo tuumaale tuumaale tuumaale tuumaal ba Ousmane Sonko laay wax même bu ngeen ko fekkoon ci jigéen jaaxal laa la wax yéen di ay malaay di yéen ngeen fekk Ousmane Sonko ngeen woo man ne ma kii Ousmane Sonko la may ne kii Ousmane Sonko da ngeen koo fenal fenal bu ngeen ko fekkoon mu yàlla da ngeen maa tàmmali fen ci Ousmane ba nit ñi dañoo gëmatul seen i fen bu Ousmane Sonko nekkoon ci lu sax duñ ko gëm. ndax fen yi ngeen ñu tàmbali ngeen ne fen fen fen fen fen ba Ousmane Sonko léegi da leen a raw dafa dem ba moom Ousmane Sonko dafa am autorisation pour def lu bon saa su defee lu bon sax ñu gën koo bëgg ndax fen yi ngeen ko fenal ci ay jëf ju bon yoo xam ne dara amu ci dañ koo miis miis miis miis miis ba. ku ci jàpp ne am nga vidéo ki yoo xam ne doo ko génne jàpp ne ne yàqal nga Ousmane Sonko sa bopp ngay yàqal Ousmane Sonko billahi wallahi wa taalahi gën a bari doole day gën a taxaw ko day jël réew mi par force yéen comploteurs yëpp di ngeen feeñ waxoon naa leen ko dañoo leen def leen dànk xeer bi naa leen ngeen la tekk de yéen ñi may déglu nee naa leen di leen tekk affaire bi du yëngatoog fëgg dënn bi toog ci réseau yi di mbett mbett de course de fond pour un endurance doit arriver sur la ligne d'arrivée do affaire paadal du affaire làppato du affaire jam du affaire xam nga koo xam ne da ngay fortaat di dundee ka lekk ko xam ne taxawoo fenn doo koo fenn amoo famille amoo dara tu es un single ko di taxawaal mën ngaa fanaan ci sën mën ngaa lekk ci mbay mën ngaa tëdd fu ne yow képp sa àdduna yow képp la àdduna yow ci wéet nekkoo ca kenn du papa du yaay du mbokk du xarit du joom dara amoo benn responsabilité dara la mën ngaa fanaan fu ne mën ngaa lekk ne mën ngaa dëkk fu ne mën def ne yow lu sa ay wax dañ ko déglu ñun dañoo am ay responsabilité am ay mbokk dëkk ci am na yoo xam ne daañu ko def am na yoo xam ñu ko def yéen ñi ko topp yéen yéen a nekk ay nit Ousmane Sonko moo des baag nga ñàkk yaa ko waxoon de Sonko ku ko songu ku ko songu saam ku ko songu yaa ko wax rab mi ngi suñu suuf na bu wàññi ñooñu taxaw di la xaar du ñu dellu yotaa du ñu mayee avance avance bi kenn du ko delloo œil pour œil dent pour dent c'est la loi du talion nous ne sommes pas de crise pour tendre l'autre jour parce que nous avons déjà reçu une gifle sur la joue droite on ne tend pas la joue gauche œil pour œil dent pour dent c'est la loi du talion gatsa gatsa rek naan guy yi ay xaw ma ceeb xaw ma seen wax tàppale engrais yi ay dañoo mais constitution bi daf na ku kuy yàlla a constitution daf ne ku tëdd jigéen mënut a réew loolu bu ñu ko def Macky Sall di fan war di fan Diouf kenn du ci fan dañoo nekk ci république charia boo xam ne imaam dañ ko tànn ñun utuñu imaam bu jàpp mais ñuy dugg ci tubéy jàmbur yi naan réew xool ndax damay tëddee wala muy tëddee xale loolu fan lañ ko ci constitution bi kon daal président boo ko nekk wala doxaat wala wala tëddee ay jigéen loolu fan nga bind ci réew mi lii du tooñ xanaa tooñ bi mais tooñ ñu ci dafa mën a tooñ ki dafa mën a tooñ te dafa am nit mun tam xëy bés bu jant bi so ba jant ay gor boo tooñee gor bi tey bu nekk ngay tooñ gor ñi boo leen tooñ gor ñi sax pat waaye da ngay tooñ gor si ba noppi xëy taxaw fëgg sa dënn ci tooñ ba noppi fëgg sa dënn am loo xam yàlla ba ko moo tax billahi wallahi xamoon naa toroxtaan gi dañoo gis xam na xam ne ku ko def ren ba euh, xam ne am na loo xam mënoo di xëy tool ko si bés bu nekk di yàq deru di yàq i der bés bu nekk taxaw na yow di nga am koo xam ne boo ko laalee dootoo laal nit sa àdduna am na ñoo xam ne yàlla moo leen sàmm ku leen laal torox Sonko ku ko mas a song yàlla woon na ko ku yàlla bëgg rek mooy songo Ousmane Sonko waaye Sonko ku yàlla bëgg doo ko ndax da nga koy bëgg ñooy taxaw di xaar xeex bi jihaad la suñu amuñu ci kuñ ci rusati kuñ ci bañ a nekk duñ ci tooñ kenn duñ ci waxal kenn dara képp ko ànd ngeen di xeex dañuy ànd ak yow xeex boo wëlbatikoo nag dañuy boo wëlbatikoo ni dal ci kaw Ousmane Sonko ne teguwul ci dëgg ba doon dëgg sax laa la wax dégg nga maam lan mooy intérêt bi Ousmane Sonko fekk naa ko ci kaw jigéen après parce que ku ñu fekk ci kaw jigéen ci réew mi mënoo wàllu ci réew mi loolu loolu fu ñu bind fan lañ ko bind fan loolu du dee du islam nañu maanu yem fi ñu war a yem dañuy xool lii intérêt général réew mi alalu réew mi sàcc ci alalu réew ak ñu koy lekk di ko def jigéen ñu wax ci ñooñu waaye commerçant bi yor bitig béykat bi bay bayat yoonam nekkul ci alalu réew mi signé wuñ chèque embauché wuñ kenn sàccul suñu alal yàqul suñu ay hôpital euh, sàccul suñu dara nga fekk ko mu yor ab sangam wala ab ndigéeyam di ko nappaaje nga ñëw taal sa rajo ne béykat béykat fekk naa ko ci kaw kaw diw non nga ana suñu la yàlla bëgg ko boo gisee yàlla jafel tuuma njaalo yàlla jafel ko ci àttee ndax àttee dafa tànn tuuma yi ñoo gën a metti àttee njaalo tuuma yi njaalo firnde yi tu yi njaalo moo gën a metti tuuma njaalo accusé nit de viol indi preuve yi moo gën a jafe lu parce que yàlla dafa bari sutura lépp loo xam ne yoon àttewu ko boo lépp lu yoon terewul yow boo ko àtte mënoo taxaw ci place nit ñi ne yow yow yaay yàlla yow yaay àtte yaay wax lu baax ak baaxul li baax ak li baaxul yàlla moo ne lii baax na lii baaxul su dee ci charia la bu fekkee ci àdduna la mooy wax li baax ak li mu tere waaw kii taxaw di tuumaal Ousmane Sonko moom fan la waxaatee Ousmane Sonko leen ne réew mi nga koy jël réew mi constitution boo wax ni ñu ko jëlee nga ne dafa tudd kii dama ko gis ci ay damaa jooyee nelawuma takk say noix fii ba say yaay nay code ñun xam nañu ñun dañu def psychologie am na yoo xam ne fenn yoo xam ne boo koy def doo xool ñu ci bët il faut nga def ay noix fii ba ay yaay nay code ngay dóor taxaw te tat dañu giiñ loolu ñun jubluñu yi giiñ ngeen jubluwaat. benn maam waxoon na ma nit ki li wax di di waat bu ko gëm ndax ma ne ko tax mu ne ma waat gam waat moo ne xam ne du mu ko gëm day fen na wax rek boo gëmee baax na ndax muy waat day mottali ay waxam pour bëgg na gëm ko parce que xam ne moom kenn ko wóolu moo tax ñu waat Sénégal nag boo waatee ñëpp cëkk yéen a dàq gëm nit kuy waat te réew ku fi waat ku ne da ngay fen ñu si ëpp dañuy fen ndax xamuñu sax di sàcc waat xamuñu fu ñu war a waat te fu ñu war a waat xamuñu charte yi toog di dara rek jànguñu diine jànguñu français jànguñu ñu bokk ci société toog ubbi seen rafetal di wax rek di ñu di wax ci xam-xam ngeen topp leen yéen làmb tey di tax rek ku fi dee nag yéen a ko rey yéen yéen ku fi dee yéen a moo tax man xaw ma leen gisuma leen dajoo ma ak yéen seeku ma ak yéen lenn lii lii may wax ak laa seetlu su ma ci paree pare naa xam naa leen. ngeen ubbeeku yeewu delloo si seen xel yi ubbi seen xel yi xawal ñu ngeen di déglu ut xam-xam ak dëgg bàyyi folklore ci fee di veere ci yu kenn xamul waxi ay adamoo ki gis nga adamoo ngay ñàppiku moom jox ko xaalis adamoo ma ngay ñàppiku la daal ci sama kaw faa foofu la fekkuy adamoo ñu wax ma yàq muy de ma ngay ñàppiku ah, wax de gis nga ne de jël nañu ñenn xaalis jox xaalis bi ñëpp ñu lekk dugg ci oto yi sol dem def ci ay shopping benn kër jàppal bàyyi di fen guddi ak bëccëg te ñi leen jox xaalis xam nañ ne ñu leen topp parce que ñoo ñi leen jox xaalis ñu xam Sénégal xam nga ñëpp xam ñëpp xam li xew Sonko mooy cible man xam naa ki Sonko leen ñu di ko woo kenn ku nekk di ko woo xam nga ay complexe ay kaw ko ay lappato ñëw def live def ñu woo di mais Akhenaton moom bu ko kenn tudd parce que day wax ci barab bi il faut l'éviter waaye dañ wax ak moom ci suuf léeg-léeg ñoo ko defal ni publicité bi léeg-léeg ñoo ko génne ñu lii soxla nañu soxla nañu audience am waaye moom il est pas fréquentable parce que dañu bëgg ñu dëgg di man moom je ne suis pas fréquentable parce que maa man moom waaye nag bëgg nañu bëgg nañu bëgg nañu laa ko tey waaye leen leen parce que bëgg leen dëgg naa fekk rek voilà Yérim a préparé le terrain Yérim moom préparé nee na wax dëgg ñi si des ñëpp dëgg Yérim moom moo xam ki wax dëgg ku dul wax dëgg moom Yérim yoo xam ne Yérim Yérim Sow Yérim Seck Yérim moo leen wax kuy wax dëgg c'est que loolu da ngeen tumaraañ da ngeen amul ay taxaw seen biir réew mi naan leen kii may wax dëgg kii may fen moom Yérim Seck mu def coow na man wax dëgg Yérim

Il faut avoir été initié dans l'entente pour pouvoir comprendre que moi, je suis un communicant, je ne suis pas un informateur. Je ne suis pas un suis pour influencer l'opinion dans le bon sens. Dans le communique avec son adversaire. C'est plus sophistiqué que l'information. Ah, il faut. wow, dis-moi de que Ça, c'est de l'information. Là, le journaliste là. Donc, il

làppatu mënu ko dégg ñu xëy lakk marché Ocass ci même instant bi ñuy tuumaal Ousmane Sonko mais loolu du coïncidence tout est préparé lépp ñenn ce sont des criminels mais comploteurs ñu ngi continuer di complot jamono boo xam ne Bassirou Guèye génn na deux jours avant def flot ci Lumba jamono boo xam ne ñoom ñu ngi jaaxle xamuñu fu ñu jëm jamono boo xam ne ñëpp a ngi dem ana maa xam jàll ana ordonnance de renvoi bi nga xam ne yéen ñëpp nee ngeen dañuy dem procès te man gisaguma ordonnance de renvoi avocat yi kenn jotagu ko gisaguma document bu maa xam jàll signé ba kenn génn ko gisaguma ko yéen a dem procès ngeen na dem procès man leen man déwuma procès parce que gisaguma lu may yóbbu procès maa ngi taxaw di xaar boobu tey jamono bi nga xam ne ñoom ñu ngi liggéey Macky Sall ñoom ñëpp réew maa ngi tàkk gàtt sa gàtt sa ñaa ngi nga naa nga mobilisé wu ba fees dell démb Kër Massar la a ngi jël conférence de presse a fees dell jamono boo xam ne saw tuweem jamono boo xam ne Sénégal yëpp a ngi nguur Macky Sall bi àgg suuf moom moo laa moo gën mu jóg na Ousmane Sonko baax Ousmane Sonko mi ci baax yi Ousmane Sonko ngeen foog ne loolu yëfi falaa falaa la loolu dañ ko orchestré loolu ci état la jógee loolu c'est bien pensé loolu dañ ko stratégie la loolu li ñu teg la utiliser ko moom laaj leen moom laa mën ana père bi woon informé père xam nga ba ñu joxoon tàmbali père père père jëm na ji père ñenn père moo ko informé léegi mën laa na génn wax leen ana père lu tax père informé tu ko wala est ce que père mi ngi koy informé ba léegi mën laa na laaj leen mën laa ana père ak lan moo ko tàqaleeg père na mën laa génn na lii moo ma tàqaleeg père kan moo tàqali mën laa ak père nga leen ko mën laa wax. Mollah Doro Gueye Doro Gueye moo tàqali Mollah ak père père bi nga xam ne moo tax ngeen xam Mollah moo ko doon informé Doro Gueye moo dox diggante Mollah ak ne Mollah père nga lay indil en leneen Doro Gueye dugg génn père roox boppam moo tax ba père bàyyee Mollah ba léegi déggatu leen Mollah weddee dinaa wóor père ba gis père dugal père ci laay père wax li may wax yëpp. loxo loxo ma laa wetti mën naa bu tax wax li xam li xam bu ñu ko waxee ak yeneen yoo xam ne père sax xamu ko ci mën laa donc mën naa tire sa calme kii garde son calme kii respectueux na bàyyi Ousmane Sonko tout su ko deful àdduna bi da yàqu laaj leen mën laa yéen ñëpp ne ko mën laa ana père mën laa lan mën a taxalee père laaj leen ko mën laa moom il est honnête il est sincère nit ku laaj leen moo laa ndax xam na Doro Gueye waaw wala déet laaj leen moo laa lan la seq a Doro Gueye laaj leen moo kan moo ko tàqali ak père bi nga xam ne ci njëlbéen bi ba kenn xamul moo laa père moo ko doon jox ay information moo laa dina ko tegal ngeen tàcc moo laa moo nekkoon te ba ko père bàyyee la moo laa jaxasoo dugg fi tam xam nga Doro Gueye moo koy manipuler di ko jox ay information moom moo laa ko weddi ah gisatu leen père parce que dañ ko tàqalee père ne ko père élèves yi ñu def baaxul père da lay indi en erreur père ñi ko tàqalee ak père ñoo nekk ci ginnaaw lii muy waaj wax naan da koy jëme yooyu ñoom ñoo ko ko jox ñoo nekk ci ginnaaw di ko fay ay hôtel di ko dugal fu ne ñu di ko xool ñëpp muy jënd ay yére di sol ay dàll di wanewu di fotowu te xamul ne moom gis nga wax ak vidéo la boo ko defee rek feeñ kon dafa yaakaar dafa muus mais muusul gaa yaa ngi jël vidéo ñëpp di ko collectionné teg di xool waxam yëpp baalam yëpp contradiction yëpp ni ñu paqueté teg benn par benn yëpp contradiction yi nekk ci waxam photo yeeg oto yi nga dugg génn dañ maa kii fi nga dëkk dañ maa léegi kër kër waaw dégg nga maam fi euh, waañ yi ngay laaj fee tax nga nekk ci waañ bi fi nga dëkk foyer bi nga nekk oto yi nga doon dañ maa yëpp ñu ngi ñu compilé toog dossier lañ ci xam na foo xam ne duñ fa àgg parce que jaru mais li ñu bëgg mooy tooñu kenn bu ñu kenn doon suñu projet du juger Ousmane Sonko Sénégal gépp ko moom su ko benn nit dana yàq dañuy dal ci kaw Ousmane Sonko kenn du ko laal suñu projet kenn yàq bu ko dal ci kaw moo ñu gën a yomb yàq biir Ousmane Sonko loolu na ko xam ci teel amuñu ci maslaa ñun taluñu ay wanewu ay sol ay ay Stan Smith Stan Smith biñ koy sol nii xam nga dañuy sol ay Stan Smith ak ay Lil Nas X dañuy sol ay Lil Nas X di sol ay Stan Smith di ci teg ay Levi Strauss di ci teg ay chemise yu façonnable booba yow yaa ngi ci mbedd mi di ut loo lekk ci malisu tubaab yi kaw la il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter oui muy sol benn Stan Smith teg sa caméra teg say dàll ak sa benn casquette di wanawu mu mel ne benn golo boo jël yóbbu ko ci biir nit ñi solal ko yére il faut mu ne na tey golo bi sol na yére quoi attention benn casquette wala benn euh, naay boo sol benn stance mi ñun dañ daan yéeg ay stance bi di liir ay di yéeg ay liir na stage xamoo luy liir na stage dañuy xool ba ñu xam ne gars ay arrivistes lañ quoi ils n'ont rien dans le ventre c'est des c'est des c'est des des petits types c'est des gens affamés des arrivistes qui n'ont rien avec l'argent tu les achètes après Ils toog nag di fëgg seen waaye man lii man kenn mënu man noobu laa man man lii soo rek laa nuyu négocier jënd ay dàll dugg ci magasin yi changé changé seen garde-robe taal caméra yi wane xool leen ma tey dama sapé ah tey dama teg tey dama xam nga tey wante tey dama moom dama solo tey dama toilette nit ñi toilette dafa xew nit ñi nit ñi léegi ci xel la ñuy toilette nit ñi léegi ci xam-xam la toilette yére nit ñi sooy nit ñi xam-xam la ñuy toilette ak njub ak dëggu léegi foofu la toilette bi nekk nekkatul ci ay yére. mais j'espère qu'il va venir à de meilleurs sentiments. Je l'espère. Je pense que mon Boudougou il va revenir à de meilleurs sentiments. Parce qu'il est en train de se faire manipuler par ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di commenter ma koy wax di ko invité en tant que frère nous diru si ça dépend ça dépend vous direz avance day jafe fait des si Kasi gaya nyo, boleh ñu la logalee il faut que nga boleh leen boo logalee boleh boo jëlee avance tëdd ci hôtel yi jënd ay yére yónnee Sénégal kër kër am lu ñu la defal léeg am dem seen boleh kaw la tout ça ah gars yi boo leen logalee il faut nga logil leen moo tax ma ne la est ce que di nga mën a dellu ginnaaw gars yi ñëw yi gars yi caaxaan ne sinon dañu la tegal boleh dellu ginnaaw nga lay siiwal tegal moo tax log wóoru waaw boleh tax mënoo dellu boleh gars yi boo dellu ginnaaw ñu lay boleh dañ laa logale tegal moo tax ma jàpp ne fitu dellu ginnaaw waaw parce que dañ laa poussé pour nga des lii dañ laa poussé xam nga doon na cohérent déglu bu baax doon na nekk lu xel ma a nangu nga génn ne am naa lu bees ci dossier Adji Sarr bi ñu tuumal Ousmane Sonko loo xam ne Ousmane Sonko ko def nga ne Ousmane bi ma doon jàppale ba ma koy jàppale ci dossier bi damaa gëmoon ne deful li ko loolu laa ba sa tey nag am naa fi ne yàqin ne Ousmane moo def nga indi waaye yow ngi topp Ousmane Sonko di ko jàppale ci tuuma boo xam ne dañ ko koo teg mosoo gëm ne dañ ko koo teg kenn mosu koo gëm fi ne yëpp ñëw na lii ay tàppaleel yow nga wax ci ba tàyyi na lii ay tàppaleel tey nga xëy bàyyi loolu yëpp teg ko fële indi lu bees mais loo indi nga ne damaa indi Ousmane bu doon tëddee beneen jigéen fële Ousmane bu doon envoyé xaalis fii Ousmane buy wax ci audio fii Ousmane caga laa leen indi ñoom ñoo ne waa yow dossier Adji Sarr bi kon nag ñu leen déedéet foofu moom yàlla amu fa Ousmane lekk Adji Sarr dara sàcc Ousmane loxo dafa set wicc Ousmane musta njaayoog Adji Sarr yaa ko wax waaye léegi dafa am beneen mbir boo xam ne bitim réew yi boo xam ne moom laa leen indi ana cohérence waa est nit ku nitee nit koo xam ne xel maa ngi dund nit koo xam ne nit ñoo ko jur dina def jëf ju mel nii damay di laaj yëfu nit doon na sax nekkul lu xel mën a nangu nga ne lii ma doon xeex muy affaire Adji Sarr bi jaarale bi ñu ko jiiñ ci Adji Sarr tey am naa lu koy firndeel kon la ma waxoon dama koy weddi ndax am naa day preuve waaye yow la nga waxoon démb ci Ousmane Sonko mooy njubam mooy dëggoon mooy mësta sàcc alal réew mi mësta njaaloo mësta xam Adji Sarr loolee nga leen wax démb ba ñu bari topp la tey loolu nga ñëw dëggalaat. waaye yemoo ci da ngaa dëkkal loolu ba ubbi beneen bunt booy tuumaale Ousmane Sonko ci leneen loo xam ne kenn xamee ko ci leneen loo xam ne kenn mosu ko koo tuumaal ci leneen loo xam ne demul ci justice kenn àttewu ko ci kenn bëgg ko ci kenn bëgg koo yàqal lenn nga ne yow da ngay ubbi beneen dossier Ousmane Sonko boo xam ne kenn topp ko ci. kenn tuumaal ko ci yow Mollah Morgun léegi a xam Ousmane Sonko mu nekk candidat 2024 ci kaw tuuma boo xam ne nee nga dañ la koo jox ki la du lan jubluwaay la sa am mu yow doomi jàmm sa bàyyi nekk ca kaw la nee lu bon ci Ousmane Sonko moo xam dëgg la moo xam dëgg génn wuñ ko amuñu fi ñu ñëw fekk la yow Mollah Morgun yow di la ko jox pour lan yàqu ne nit koo xam ne Sénégal yëpp moom ko ñu ne yow jaar pour que yow nga fexe ba Ousmane Sonko kenn du ko wóolu kenn du ko bëgg ko dénk réew mi muy liggéey bu sànni boo na yow sa tànk suñu tànk ñoo lay xaar da nga xam ne Sénégal gi billahi wallahi wa ñoo def ñoo dëkk la fii mbokk loo fi yëkkati di am nañ ci téeméer bu dee deret ñoo la bu dee mbokk ñoo la gën a ko bu dee am njàng ñoo la bu dee famille bu baax ñoo la ko ëppale lépp ay mbokk ci réew mi ñoo a a jaay man actuellement la ko ëppale loo mënti yëg ma la ma ko nag jotal sa cër la wan ma la ko def na sama bopp cër bi ma jox parce que man gëw ma ay ëppalante ma gëm mooy citoyenneté man ak yow benn nag ñoo yem ci réew mi a ànd xeex ma boo duggee ci ay jàpp ne yow yaa nit ñi te da ngaa xam lu nit ñi xamul wala nga mën lu nit ñi mënul wala ngay jëf lu nit ñi xam mënut a jëf. loo fi yëkkati fegu ko nit ñaa ngi la ko ëppale ci réew mi nag tekk ëppoo ñuy alal ëppoo xam-xam gënoo ñu juddu daa ko ñu jaamu yàlla ñu xam-xam amul loo fi yëkkati di ko naboo yow xanaa si fu ngay waxee sa bopp ñite ngi ko ñite ngi la ko ëppale milliards de fois ne pat doo jàpp yàlla bu la roon na yoo ko xam dellu si nga nekk nit manipulation yi ñu lay manipuler nga génn ci ñi lay manipuler soxla wuñ la de Ousmane Sonko lañ bëgg a yàqal bu ñu paree ci loolu dañ lay sànni ci àll dama lay conseiller dama lay conseiller moo laa moo gën dama lay conseiller nee na nag kenn la conseil waaye man dinaa la conseil par force mu neex la mu naqari delloo si ci sa xel nga wax na sa njëgënaay bu baax parce que li nga doo ci am ndam billaay soo ko génnee doo ci am na soo ko génnee doo ci am ndam loolu la la wax yaa xam ne lu neex nga def yow Ousmane Sonko tuuti nga ci wàcce ko tuuti nga ci génne ko ci xel ñu yàlla moo ko dugal ci xelu jaamu Sénégal yi Ousmane Sonko lu mu mën di def tey yi bëgg nañ ko lool mënoo fexe muusoo ko Macky ba ay nit yu ko bëgg a yàqal jaar ci yow pour parce que yow dem nga ba yaakaar ne Sénégal ku fay nooyee yaa ko def officiel bi nooyee yow loolu nga foo ku nelaw yaa ko nelaw la na Sénégal bi sax ndax Macky Sall wane la nga ne xam la yaa ngi wax ak waa pouvoir bi ku la wane lay wax ak waxal leen Macky Sall duggal ci palais bi waxal leen Mariam Faye Sall waxal leen Pape Alé Niang neen dem na Mermoz kële kële jàppal bàyyi yooyu yëpp suñu yoon nekkul ñooñu toppatoo wuñu leen Ousmane Sonko moo di intéressant ndax mooy incarner l'avenir bi ñu bëgg ci Sénégal suñu képp kuy jéem a dugg ci loolu di ko jéem dal di yàq di ko sosal di dañuy jóg dal ci sa kaw te ñun nag sa kaw wallaahi xam ne ay góor yàlla dal na ci sa waaye ñu ma sa song Ousmane Sonko yëpp du ko daal kenn du àgg ci moom ndax yàlla may na ko mbooloo mu dugg mu taxaw moo xam ne ku ko nar a ci kawam ñu dal ci sa kaw lu leer laa la yéenewuma la Sénégal yëpp jóg mbaam la dal ci sa kaw sa àdduna da yàqu lu leer laa la ndax ëllëgu Sénégal moo taxaw yaa fi taxaw ne xeex bi ñu jàpp yaa fi taxaw ne esclava yaa fi taxaw ne réew mi dafa baax yaa fi taxaw ne yow ni yaa fi taxaw ne richesse yow li nga wax yëpp tey nga xëy li nga fi xeex yëpp nga xëy tey mandé ko subhanallah qu'est-ce qui se passe yow ya, lan moo daal wala nga jël amas wala nga liggéey wala qu' est ce qu'il y a yaa ko pare nara teg mais nekk nit Il ne réussira pas son coup. parce que jàpp na Sénégal yi dañ ko déglu jàpp na Sénégal yi dañ ko gëm moo mu yaakaar moom fi mu lu mu wax rek du ci am ndam na ko génne na def lu ko na def lu ko neex dina xam ne yéen a ko def yéenay fekk page Facebook yoo xam ne saa lañ koy def ak diw moo tëddee kii diw moo def le ngeen dem abonné di partager di ko yaatal ba Sénégal yëpp ñëw ci wax yi koso koso yoo xam ne amul bopp amul génn amul lenn loo xam ne mën nga cee teg firnde liñ fi ñu fi tuumaal ñëpp amul benn tool diw waaw moo tëdd diw moo dëkk ci koñ bii kër gii premier étage bi moo waaw ndaw sii photo bàyyi nii kër kër loolu dina mën na ko loolu ba mën naa ko diw moo dëkk fii moo am

eh bien signes yi da ngay xam signes acteur bi ñu ngi wàññi bu acteur bi wàññi dee nag mooy film baa ngi wàññi jeex di rey rek di rey rek bi xam leen ne film baa ngi wàññi jeex si acteur bi di dee ak ci film bi di yi en général bu acteur principal bi tëddee bañ dóor ko bal wala mu feebar ba wàññi dee fi muy dee foofu la film di jeexee foofu lañ toll suñu toll film di mooy wàññi jeex te ba ngeen xam loolu xaalis réew mi kenn mënu ko tabax ndax xaalis ñu naan naan tubaab yi tubaab yi ñooñu lii tubaab yi jaam yaa ngi ci biir réew mi ay ñu ñuul lañ yow seen nekk ay géwël ratatat laam nañu saf waaw laam nañu saf kese waaw yow ay deretu jaam xaalis fu xaalis nekk yóbbu xaalis lañ bëgg dund yomb moo tax boo ko déggee ba démb Ahmed Khalifa ñu naan ah ñes gi de am na si koo xam ne de moom ñes googu dañoo wàññi bokk na suñu ñes gi ndax ñes googu ñoom dañoo ñëwoon ci ñun rek xam nga nekkoon ci tokkul ah, suñu maamu ñesee ni ñu jox leen sant ñes bi waaye ñoom dañ fay ñëw dañ daan def saa saa ñu sonal rek jàpp ci ñeen leen jaay ah, jëfandikoo loolu moo nekkoon ah, waaye bokk na ñes gi mu ne kii mooy doon Ahmed Khalifa Niass boo xam ne bon ji naka la bon waxee waaye boo dawalee tuuti rek da nga doon Ahmed Khalifa Niass la moo ko def su dëgg parce que yenn jikko yi yu sew yi yenn jikko jaar yi ku ko mën a am rek xanaa da ngaa nàmp parce que yenn yi nit asgor du ko def asgor du ko def dëgg dëgg la boo ko Ahmed Khalifa Niass waxee ni mu ma waaye boo dawalee tuuti rek gis jikko yi da naan Ahmed mii kat waxam bi wax ju ñaaw la wax ma naqari la waaye wax yi est-ce que dëgg parce que yenn yi naka la ko asgor mën a defee yenn yi jaam jaam jaam sax du loolu di di di di lekk di lekk di lekk di lekk di lekk xëy wàccu li nga lekk ñëpp wàccu ko wàccu ko wàccu ko lekkaat li nga wàccu woon ñëpp ci benn nit bi ba pare taxaw di fëgg sa man de am naa tey jii su ma demoon ba gis loo xam ne Ousmane Sonko doyatuma dinaa am ngor bu toll ne dama koy baax duma ko jàppalee duma ko waxal waaye du ma génn mukk di ko weer man ku xam. ku xam xam ne noonu laa mel xeex bi may xeex am na ñu ma ci xam ñu bari ñoo xam ne am na ñoom xeex dem ba ci biir xeex bi ñu war ma ci xeex yéen xam ngeen du benn du ñaar du ñett man as gor la yéen ñi ànd yéen ñi ànd man su ma demoon dégg ba yàgg man déggootu ma ci kenn si yéen du àdduna bi yàgg ba ma taal télé wala rajo naan diw lii man as gor laa noble la damaa judd ci noblesse am éducation mel la wala mu xuloo yéen du tax ma teg ci kaw taabal ci du ma ko def mukk waaw man da ngay dem na nga dem maa woon sama du ma dellu si ci relation du ma dellu parce que ñoo àndoon di mais ànd nit di xeex di jàppale Ousmane Sonko xëy benn bis dara xewul defuñu la dara boo doon wax sax ci mbirum Adji Sarr sax. nga bàyyi fa loola ne loolu dara amu ci ku jublu sànni su àll dem indi lu lu bees tàq loo xam ne kenn waxu ci jotewu leen ni ñuy xeex jotewu leen suñu projet ci moment boo xam ne fan Ousmane Sonko nekk ci sa nga ñëw dañ maa jox ay renseignements ci Ousmane Sonko du dugg ci kër tëdd kii sàcc kee yónnee kii xaalis yónnee ay whatsapp vidéo kër kër du suñu yoon ci te lépp di ay xel du suñu yoon mën a yokk jur la mën a Sénégal ngay xeexal ba Sénégal ngay xeexal Sénégal bi ngay xeexal xeexalul ndax Sénégal bi ngay xeexal Ousmane Sonko ñuy bëgg nga bëgg a yàq la na Sénégal yow xanaa Macky Sall ngay xeexal Macky Sall ngay xeexal ak ñi sàcc àll réew mi xeexalul Sénégal ndax Sénégal bi ngay xeexal Ousmane Sonko ñuy bëgg nga xëy di tuumal Ousmane Sonko yow xeexalul Sénégal ban Sénégal ngay xeexal Sénégal amul Sénégal bi ñu koy wax Sénégalais yi ñoo tax mënoo fekk bëgg-bëgg di ëpp ci askan bi mooy Ousmane Sonko ngay xaar Ousmane Sonko ba nekk daan Sénégal ngay xeexal Sénégal du ak xott ay nit ñoo fi dëkk li ngay wax dëgg li ngay wax dëgg alal ngay wut àdduna ngay wër bëgg xaalis bëgg dund bu yomb bëgg di bleu bëgg bës ci ci loosu jàmbur yi ñu lay jox xaalis non, loolu loolu c'est pas sérieux xaalis ko liggéey c'est pas sérieux tu as intérêt à te ressaisir, à revenir dans la communauté, à revenir dans la humain, à revenir dans le monde de l'humain. Tu es dans le monde de l'animalité. Reviens dans le monde des humains. ñëwal ci ëttu nit ñi te nga génn ci ëttu bàyyi ma yi nekk parce que bàyyi ma rek moo gën a man kese faalewu ma kenn du ma kenn man kenn du ma conseillé maa xam lépp maa man lépp na ma ñëpp déglu Ousmane du ma a du ma mënoon Macky Sall ma yàlla du ma mënoon Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam loolu du a lekk ba a dund ci ay hôtel da ngay futteeku di liggéey ut sa xaalis di ko defal sa bopp. voilà waaye gouvernement canadien moom may jox lii gouvernement canadien moom may fay lii gouvernement la moo tax gouvernement canadien fay pourquoi le gouvernement canadien dina fay pourquoi qu'est-ce qu'il y a pourquoi gouvernement canadien di la loger di la jox ngay lekk bu su lekk nga tegoo di wax pourquoi tu es handicapé amoo doole li ngay wax yëpp na ñu ngi ci yow intelligence xel muy xel li capacité tout ça li ngay wax yëpp na yow jant bi su xëyee yaa ko yaa ko yebal bu tëddi yaa ko yebal yaa ko wax ba noppi nga ne yow gouvernement canadien bi ñu la jox nga lekk mais est-ce que yéen yéen ñi ko déglu est-ce que am nañu njëriñ waañ boobu ngay toog di laaj waañ woowu waañ woowu du am néeg fan ngay fanaan fi nga nekk fan la foofu nga dëkk foyer boobu ñenn ñoo la fa dugal ñi fa dëkk ñan la ay réfugiés wala la loolu mooy question yi pourquoi léegi-léegi nga génn dem ci ay hôtel wala luxe yi wala kër kër tu as besoin de prouver quoi ñun bi ñu amee trois ans deux ans la ñuy dem hôtel deux ans. bu ñu masaan toog ci table di lekk dañuy teg leen ñaari chaise ñetti chaise pour ñu jot di dugg piscine di dugg ci a di à ñu tegal ñu ñaari ba ñetti chaise ma xam xam nañ ñu may wax donc ñun soxla ñu dem ci ay hôtel taal ay caméra di bëréw di wala la ñun ñëw ay hôtel parce que di dawuñu ci ay sën ak yi medd ki ay ay ay di lekk ci mbalit tubaab ñun toog ci table di lekk ñuy lekk amuñu pour lu ñuy wan Sénégalais ñun Sénégal dañu leen yërëm dañu bëgg réew mi soxali ko ñëpp dund te la foofu lañ toll amuñu lu ñuy bëgg ak di complexe Sénégal dugg ci hôtel ñu wan réew maa ngi hôtel la ah, salle musculation ah léegi léegi boo paree dellu ci sa mbuuru gënaat il faut arrêter il faut respecter les gens il faut respecter les gens trop c'est trop trop c'est trop nit ñi ñu wax dañuy garder di muñ di muñ di muñ di muñ mais kii mu ñëw tamit day xam boppam xam fu muy yem am limite mais léegi nga koy muñal saa yu xëy rek gën la yàq saa yu xëy di wax saa xëy di ñoppali saa yu xëy di ñoppali di ñoppali mais balaa ku sell gi ku sell gi kenn du ko ku sell kenn du ko parce que sénégalais yi ñoo xëy na ku sell gi la yow kenn du ko laal man mii kenn waxuma ko moom lañ ne moom mooy ku sell gi te sénégalais yëpp mënuñu bokk fëgg dënn du réew maaman du réew maaxam réew modeste la doomu Macky Sall bu ko neexoon sax taxaw ñu fëgg dënn ndax bàyyi sàcc na alal bu yor ay milliards bu ko neexoon taxaw di wane Amadou Sall yow ba balaa ku la xam kuy sa bàyyi loolu si bàyyi lan la fi tabax ba démb lañ dugg seen kër gis nga la fa ne mu ne la ma dajale woon fay ku la xam xam ne juddoo gitu woo ci luxe manqué woo ci luxe seen kër ko ko waxul xam ne juddoo woo ci luxe nga war a nekk yow ci gën a modeste ci réew mi wala fekk kuy bajj bajj kuy tëb nga ne ko hey bu ñu fond réew mi dafa bari ñu duul comme man je respecte nit ñi yam mais boo amee ñaari tubay ak basket casquette taal sa téléphone di complexe nit ñi loolu mooy la respectin, leen doomu aadama respecté respectin bopp respecté seen waajur yi respecté Sénégal yi réew mi toolu mu jamono yi wanewu jamono yi maa man naa xam réew boo xam ne ëpp ci askan bi dañoo sonn amuñu dara nañu am respect ci Sénégal yi Sénégal yi sonn nañ nañu warmal Sénégal yi nañu bàyyi taal Facebook yi di wane dàll yi ñu solo ki oto yi ñu ama ki lekk yi ñuy lekk ki kër yi ñuy dëkk ki yooyu loolu ku ne man nag man wanewu sama dara parce que pour la ma koy wane sama vie privée kooku sama vie la du vie kenn li ma seq ak yéen mooy Sénégal gi ñu bokk loolu dañ ciy wax mais sama vie privée au man di leen wan sama château sama oto sama jabar samay doom lu ma am ak ma amul loolu seen yoon nekk loolu sama vie privée

nit mën na ci dugg njaboot ay doom mën na ay walawu ak yu ay produits yi da benn sagaru dàll benn ensemble yu jógin ak benn càq boo takk yu nga mel pitax mais il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter respecter nit ñi juddoo ci ndóol dara nga dem ba dugg ci wax rafet yi kenn xamul doole nga mas tuuti commencé nag di complexé sa moroomu baadoole yi nga bàyyi woon ci suuf te ñoom amuñu li la am nga leen woon ne am naa ah xool leen ma ah xool yéen bi ma sol ah maa ngi ci hôtel bi ah maa ngi Canada ah man maa ngi Espagne ah man lii ah man laa ah man kenn mënu ci man dara ah man kenn mënu ma jël si ah man kenn mën na ah man man man man man moi moi moi moi moi je je je je je je je je je man man man man man man man mais ba kañ koy waxal kan ngay waxal. koy waxal Mollah dafa jot ni ñi wax na dëgg tamit. bon foofu laa yem partie du cadre incha allah restons concentrés sur l'essentiel nous avons gagné la guerre gagné nañu combat bi Ousmane Sonko incha allah la day fal tàppale Macky Sall yeeg soq yi nga xam ne ñoo ànd ak mu doole gi. Mollah Morgun foofu laa tëjee bu subaa na ngeen xëy wala léegi ngeen ne ko bu subaa na xëy live ci ta bu ñu jàpp ci réew mi moo koy jaay Pape Doora Gaye mooy bras droit Mariam Faye Sall Pape Doora Gaye Mollah taxaw que Doora Gaye mooy bras droit Mariam Faye bi ñuy jaay ak joor jaan moom moo ko recyclé Doora Gaye Mauritanie la nekkoon def fa tuuti wu ñu daw doole bii kàddaa dafa yëngu ndax la truand ak rëbbatu doole bii cocaïne lay jaay trafic faux billet ñoo tegoon seen mafia léegi rangé wu na ci ginnaaw Marième Faye Sall waxtaan bi ba ñu ko doole dee ne leen man laa mën bu amee ay dossier na génne dossier Pape tax muy génne dossier Doole Gueye laa mën gën la seq ak Pape Doole Gueye loolu laa bëgg yéen ñëpp ngeen laaj ko man laa mën gën ak laa lan la

Doole Gueye moo koy xeex auprès de Mariam Faye Sall ma wax leen ko tey ngeen xam ko Doole Gueye moo jël dossier Thierno Bandone jox ko Mollah Morgun di ko génne jàpp di dal ci kaw Thierno ñoo ko ëpp ay information dal moo nekk ci ginnaaw mooy xeex Thierno Bandone pour que ëpp ko place ci Mariam Faye Sall jox Mollah ay dossier loolu Thierno Bandone la ko xam. Corri grâce à Gassana. Amul problème. nee leen ko nee leen ko moom bu fekkente ne sequl ak doole gay suba suba dit, génn wax ci doole gay xanaa mën nga am dossier ñëpp ba am dossier Ousmane Sonko te amul dossier doole gay na ko wax gaa yaa ngi traçabilité yi li mu seqal doole gay yëpp gaa yi am na simple tiital gor simple la la xamul nga ne di nga daal sa nga tuumaal ci réew mi ñëpp a ngi taxaw ñëpp a ngi nga ne sa bés a ngi ci bis newoon xeex bi du xeexu caaxaan xeex bi xeex bu nar a yàgg la xeex buy jël temps la xeex waaye gorsi rek a fi des daal waxoon naa leen te ku fi siiw yéen aussi fii fii mu agsi nii yéen patriote yéen ku fi siiw yéen a Ki siiwal yéen patriote yi nekk ci réseau bi di dem di abonné wak ko partagé ku fi siiw yéen a ko siiwal ba noppi nag mu yab leen ndax yéen dem di abonné di ko partagé di ko tàggat naan ko yawa yawa, ya ko yor ya xam ak yaa mën ak mu dem nag ba yab leen nag yéen képp nag ku fi siiw yéen a dem di abonné seen page yéen ñii abonné wu képp yéen a ko may mu taxaw di wax kese ak di ko partagé bu ngeen téyewoon seen loxo léegi te nit ku dégg si mu fay kon may gi ngeen koy may doole ci lay fippoo moom ne am na doole doole googu muy am na moom la palais bi di gis na ne nañ ko jéem a jënd jox ko xaalis comme ça bu defal ñu suñu liggéey yàqal ñu ñi yàq suñu liggéey mooy ñi ànd ak Ousmane Sonko ñoom ñooñee dañu yàq projet Ousmane Sonko comme ñoom dañu ko may doole moom laa léegi ñun Macky Sall jox ko wala ñu ko comme ça doole yooyu ko dóor yi xas Ousmane Sonko bu ngeen ko bàyyi woon rek parce que ñoom ku ñuy jox xaalis wala ñu dina liggéey loolu ñu bu sante dañuy gis ne am nga doole ci doole bi ma am ci réseau ñii di ma déglu yéen la du kenn ñun mën nga ñoo dal suñu kaw mën nga ñoo xas mën nga ñoo jàpp lu ne garaaw ñu muñ ko mais Ousmane Sonko duñu ko fooye Cheikh Yérim Seck nee na waaw sama dégg ba su génnee dana bari coow daañu wax lu ne dana bëri coow parce que da nga caa dugg seen i tuumaal ko boo feneen ne Ousmane Sonko kay ñu ñu moom mii génn ma yónnee ma di xanaa woon ci dus wallahi azim bi seetal ma laaj après laa ko xool bi muy laaj moom boobu maa ngi nga xam ne mooy le réquisitoire définitif du procureur de la République bii de moom laa nekkoon di ko annoté di ko lire di ko complété ci week di xool faa yi ci nekk contradiction wu euh, procureur bi ci li ñu naan def jox euh, maa xam yàlla fi mu dem foofu laa nekkoon sama téléphone bi kar kar kar ba lay xaar ma ne lu ma yëg yëgoo li ma ne lu xew ma laa ngay lu ne Ousmane Sonko lu xew ba mu koy ma waaw maa ngi la ma doon def jël dossier teg fee dugg ko parce que man ma koy déglu man ma koy déglu ma ko déglu daanaa ko déglu ay ma dem déglu ko mu def live bi daal ñoo xam ne di wax yëpp kenn amul mooy xool ko ma leen dee ma ree quoi ma nga xam ne ça c' est la fin du film film yi ma waaj a jeex affaire bi soo ko mu dee c' est normal léegi nag jël na avance bu jëlee avance rek doog na dellu ginnaaw gars yi dañuy mosal hôtel mosal yéen dina mosal benn benn dina mosal lem bi ba nga dem ba tàmm lem bi soo ko tàmmee doo mën a dellu ginnaaw fekk gars yi kii nañ ñëpp dañu ay première yëpp moo delloo ginnaaw ñu tojal guerre baaxul corruption baaxul guerre baaxul lekk alal ju yomb baaxul nit bu bëggee dara da koy ñàkk liggéey ko su ko amul muñ ko waaye bëgg dund bu yomb ndongu ndongu wane wu nekk mais boole ci ab tool yàq tool yi ci tool ci loosu dundee as gor bu ko def. kon ñu ngi leen nuyu di leen wax ne jëlul mer jëlul xaste jëlul dàggasante. jëlul kër kër li war a def xam kenn ku ci nekk yaa moom sa bopp yaa moom sa fi ngay ku fi am doole ci réseau yi ñu di ko soow yéen ñeen leen may doole ku ngeen bàyyi mu daal ku ngeen bàyyi mu daal am na ku fi temps yi la jëloon taxaw di wax ba problème yi amee ngeen dem désabonné wu ci page YouTube ba ngeen désabonné ci page jooy yi jooy xattit la jooy man ñii woon ma dama dimbali ma patriote yaa ngi désabonné wu sama page YouTube bi te boo ci waxul que ko jàppal bàyyi ma ne ko loo def dañ maa tuumaal wax ne maa def li maa def lee ma ne waa baax na déglu naa la dinaa déglu beneen parti bi daf maa woo di jooy ji yaa ngi may déglu xam baax li may wax. kon yéen ku fi abonné ma ko ku fi taxaw di foog gën a man man man parce que yéen a koy yéen a abonné donc yéen a désabonné wu rek que ko dégg. Bugün de jamono kenn du ko dégg bu ngeen ko partagé wu muy am ay 5 à 10 vues kenn du ko woo di ko jox xaalis naan ko waxal bi ni dafa ñu leen yàqal ñu leen Ousmane Sonko yéen képp la voilà ñu ne ñun jiitu ñu xam ne ñu àndal donc loolu rek mooy am solo bu ngeen xam ne di ngeen àndal rek ñu fi si ay kasal kasal la dossier Adji Sarr bi kasal kasal la newoon nañu am nañu ay vidéo ay kasal kasal la neewoon nañu am nañu ay photo ay gasal ko soxla neewoon nañu confrontation lañu bëgg ay gasal ko soxla neewoon nañu dégg maam am nañu mën nañu ay gasal ko soxla lu ñu wax ay gasal ko soxla maa ngi gis nag ñoom da ngay partagé suñu tool yi ma la ñoom ñu doon xas ñëpp da nga xam laa eh, eh, ñoom ñoom ñoom waa kër ñàkk jaam yi doon xas ma laa nga day dagg ma laa la ñu koy partagé ñu koy kaañoo la ñu koy kaañoo ñoom ñu ko doon yàq lu ne ñu koy kaañoo ñoo koy déglu ñoom ñëpp a koy dagg ñu koy kaañoo suñu tool yi moom la yaakaar na ne moo lay ñay bi man ne ñoom ñoo xas démb ñoom ñoo koy gaañoo léegi ñoom ñoo koy vaar am na loo xam ne asgor bu ko la def man dee moo gën xaru dee xaru xam nga am na yenn bases yi bu ci nit ne gor la taxaw fëgg na ba ñëpp ne gëm ne gor la ndax moo ko wax nit ñi bu xëy def loolu dund googu dee ko dee. kon bu subaa jàmm incha allah yal na leen yàlla projet bi sàmm Ousmane Sonko tey lay gën a dëgër tey lay gën a am détermination tey Sénégal gépp gën a ànd ak Ousmane Sonko vidéo audio këyit a ci projet bi moo gën a fool ay vidéo moo gën a fool ay këyit ndegam Adji Sarr mii ak Macky Sall ak ñoom ñoo mën di tër Ousmane Sonko ren ci ay complot ndegam ñooñu mën nga waxuñu la ay wax yu ko laa mën ay vidéo ay yu kenn xamul ko naan nañ ma kenn du la woo nan la mbokk yi dal jàmm ci seen seen YouTube Kawtef TV international ginnaaw bi bàkk bi daanoo ñu fas yéene leen a jukkil Kawtef yi fi jot a ci kàllaamay wolof